al venir la ye duwa le jal se jabur jam ndol kabi freedom of space te buwa le jam duwal be la duwa du buwal be buwa eh alla bolon esti gambian dream rikama boyo ndol kanna kuwal le ke is all about gambian talent tv tune in direct ala jibe stay tuned mimbe kering gambia mimbe kering gambia bantala gambia luo alla kanole dun sai na nyinyola koni ala dalo dun tana eh eh ah, ah. ah. Gambian talents alla kano yenya la mandi apachaki alla boylo nyancho jollof arts Komunyunganya obrai Gambian Talent TV always filler entertainment comedy news, anything. See that. Paranasi. Gambian Talent TV. wapo wati. Jannam. Hmm. Alkanal Globo Nije. Ala Dunkumba Kakan Touch. Alia Jibe. Music, comedy, favorite, dialogue, entertainment, Nakabula Nro. Hmm. Ipasa Malala. Talent. Talent. Hmm? Wow. one time, you know what I mean? And, at uh, uh, uh, Gambia Talent um, Promotion TV and all that. léegi am na soo leen bëggee gis lu xew si dëkk bi ak lu waral warul si dëkk bi TV bii la fii la fii fans yi ak am di jaama yi ak haters yi sax welcome to Gambia Talent TV show you get me seen xool xalaat yu bon yi nañ ko sànni fële si mbalit gindi li xale ndaw yi toog di ko foyee fële cause Peppa TV bu nekk si tundi Gambie gii Gambia Talent TV mooy seeni baay man one pack maa ko wax ku ko dinaay nga def leneen comme gars yi ñu ñooy defee yaa ngi understand ñun ñoo fi ñëw boral di régler lu fi manqué di mutal lu fi manqué di def lu fi kenn deful mu ngi nii kalama ma way la di la jóobee way wi am na maana loolu leer na ma gambiyante la noo ma way la di sa way wi am na maana loolu leer na ma yëngal nga ma ma waaji bu yaay tey te yaay barki dee bu yaay te di ëllëg fas taxuta fasa daw fasa nga sa kanam nga seentu sa ginnaaw ma say xala kenn du dem mbala waa asalaamaaleykum waa gambiyante lan damaa wax ne la ku bëgg cuuraay rek fii ci biir kër gi di gambiyante man day cuuraay maa leen defar cuuraay bu neex ci biir kër gii di Gambian Talents mën naa na xoolal cuuraay ji ñu naan teg ka bii du dem ñu naan teg ka bii du dem waaye naka la mooy a wan na kon du nokki Pa ma mic bi ma mun na toog dem. Gambia dem nii lañu sista Iva eh ñu dem Pa Ousmane. Pa Gambia dem show every Sunday la on Gambia talent. Finance Radio. Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad. Oh, 6 p.m. Let GMT just in case you ain't know. New them, new them, new them. Luther Gambia do them show Every Sunday la on Gambian Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm la GMT just in case you ain't know New them, New them, New them Pare ñaanal ñaanal bimbo ha killer sunday Yes, yes, yes, yes, yes. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu Deglo di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti koñi aduna. penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu lay bégee dalal dila tatagal fii ci Gambian talent TV nekkal leen ci gannaaw microphone bi apa Ousmane Diouf nag maa leen di leen dalal ah, di leen wax happy new year It's been a long time. DP last year we didn't have the show. I remember last week Sunday we didn't have the show, and even if we did, it was going to be um uh Sunkodefon last Sunday tamit dafroneka um see, last year 2018. Nunge Santa sant yàlla bu baax a Gana a baax 2019 a lot has happened in 2018 here at Gambian Talents ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy toppa yéen ñi ñuy seetaan yéen ñi ñuy déglu yéen ñi ñuy bëggee saa su nekk ndax yéen a tax ñu nekk fi su du doon yéen there would not be any Gambian talents ma ne ñun yéen lañuy ñuy bëggee saa su nekk Gambian talents dafa ñëw pour jàppale askan wi ñu yokkalante xel ñu yokkalante xelaat réeréwu leen mbir ne lu bari xew na suñ dëkk ci at bi ñu génna ci wàllum diine Gambian Talents xamal nañ leen xàmmeeloo nañ leen fàttali nañ leen lu bari loo xam ne mu ngi xew ci suñ programme yi diine yi nga xam ne ñu ngi leen a am bu ci mel ni ila diinoo long nga xam ne imaam Diop mu ngi koy présent ñu indil leen ay religious programmes yu bari yuy xew ci dëkk bi Tabaski Korite ngeen am am am am yeneen programmes yi nga xam ne ñu ngi xew tamxareet bi gàmmo yeeg yooyu ñu indil leen ko ci wàllu muslim yi ci christian si sang mari ñu indil leen ko indil leen naan mburu yeeg yooyu noonu yëpp ista ñu indil leen ko indil leen naan mburu yi indil leen yi nga xam ne ñu ngi xew indil leen christmas beeg ñuy yeb bi nga xam ne ñu ngi ci génna nii ci at bi ñu nekk gis ngeen li nga xam ne moo xew dem nañ cover a lot of church services for you guys suñ Christian Panorama programme bi nga xam ne Tidiane Massane Cissé mu ngi ko encore ñu koy bëggee bu baax a baax a baax these are all programmes religion yoo xam ne indi nañ leen ko ma ne ci wàllum entertainment events yu bari ñu ngi xew ci dëkk bi artistes yi nga xam ne ñu ngi am programme barki dem boo njaay ngeen mu gis ñu indil leen barki dem ba ci am euh, Thursday bi lañ leen indi Friday bi kon lañ leen indil Jalimanda Suso nga xam ne mu ngi doon launch album bi ma ne indil nañ leen open mic festival indil leen yeneen national programmes yoo xam ne ñu ngi xew ci biir dëkk saa su nekk suñ programme yu ni Dibeng Koto ñu ngi dalal artistes yu ni ñoom ST ñoom One ñoom Baye Babu ak yeneen daanaan yi nekk ci biir réew mi. when it comes to entertainment Gambian talents have been very supportive ma ci wàllum politique saa su nekk ngeen gis ñu indil leen political activities go on daa man. muy political rally muy elections yi 2018 was a very great year for Gambia lu bari xew na ci biir réew mi Gambian Talents jàppale wante nañ ak yéen ñu indil leen some of these activités yi nga xam ne yéen a ngi koy seetaan the political landscape yeneen social activities yeeg things yi nga xam ne ñu ngi xew ci dëkk bi suba incha allah at 10 am TRRC bi ñu ngi ko start seen sitting si muy Truth Reparation am uh, um, uh, am um, um, and and Reconciliation Commission bi nga xam ne ñu ngi war a uh, Reconciliation and Reparation Commission bi nga xam ne ñu ngi ko war a commencé nga xam ne ñooy gestu saytu li nga xam ne former président Yaya Jammeh am am am am moom lañ wax ne moom lañ ko jiiñ kon yu bari ñu ngi leen koy wan ci biir réew mi luy xew lu am solo la ñu leen koy bëggee di leen sant ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñooy déglu di ñu toppa saa su nekk mene lu bari nag xew na si peccum lu su neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ya comme ni ma leen ko waxee yéen yéen a tax ñu nekk fi def nañ lu bari suñ amoon nañ fi flood in 2018 ñu ñëw am ngeen jàppale ñu yéen ñi ñuy toppa di ñu seetaan di ñu déglu ak suñuy am di jàmm yi ngeen jàppale ñu ba ñu mun a move to a new office ngeen jàppale ñu ba ñu mun a build am am am am am am uh, furniture ak yeneen yi nga xam ne soxla nañ ko jumtuwaay yu ñu soxla yenn na si yooyu pour ñu mun koo jënda it was a great year for Gambian talent Soon biggest achievement like, that we are very proud of is this letter that you guys are seeing right here from the IRS, the Internal Revenue Service of the United States of America. This document you are seeing is the 501c3 status for Gambian talent promotion. We are registered in the United States right now as a non-profit organization. This is a great achievement for us. Nguri America duñ tok rek jox ko any time they can hurry. Kon ñu koy bu baaxa baaxa Ah, Legi képp ku nekk America nga bugg a donate anything to Gambian talent promotion xamal ne su at bi jeexee sooy file sa tax you should be able to get it you should be able to get that money back it doesn't matter ñaata nga donate to Gambian talents as you guys can see this letter was signed from the IRS it's our tax exempt status képp ku a donate to Gambian talents if you live in the United States su at mi jeexee lépp ñu donate lépp loo ñu jox it can come back to you muy muy five dollar muy ten dollar muy one million dollar si boppam soo ñu ko joxee su at bi jeexee nguuri America dinañ la ko delloo. this is a great achievement for us inshallah we hope to have a lot of things we got this letter on the 19th of last month from the irs thanks to all of you who have been supportive of gambian talents ñu leen a ñaax ngeen gën ñoo jàppale ndax lépp li ma fi lim rek bugga nañoo def moo beneen milestone mooy internship programme boo xam ne ñu ngi koy def di jàngal ay ndaw ci biir Gambia ñi nga xam ne ñu ngi am interest jëfi media ñi am interest jëfi photographie ñi am interest jëfi vidéographie ñi am interest ci yëfi am am am am naka lañ koy ooyee am videography photography journalism web design graphic design these are all different courses yoo xam ne ay ndaw sumay jarbaat say jarbaat sumay rakka say rakka ñeneen ñoo xam ne ñu ci réew mi ñoo xam ne dañ jeexalut school bi ko seen loxo jotut seen i gannaaw seen parents si mënuñ leen a fayal ñu indi leen di leen jàngal métier wala ñi nga xam ne dañ demoon baak we wala dañ tukki woon ñu delloo si leen ci réew mi amuñ ci luñ jàppa ñu ñëw ñun ñu jàngal leen métier wala ñi nga xam ne ñu ngee dem ci University of the Gambia and at the end of the day they don't have the means pour def practicals wala other tertiary Yusufa jaata is one of those products moom mooy def suñ Dibeng Koto show bi léegi he is a student of the University of the Gambia of course that is studying am um, journalism the same thing Aida Kebe is one of those people am nañ fa ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa ñoom Favour ñoom am um, am um, am Sarah and others yéen a ngee toppa suñ Semester Avenue programme bi nga xam ne ñu ngi leen koy indil week bu nekk every day ngeen gis ñu indil leen kenn démb leen indil the one with Papis Soxna ëllëg ñu indil leen the one with Musa Jeng. ñoom Mama Linguère Sarr am nañ leen ci studio bi am nañ ñu bari incha allah this Wednesday as the semesters go back to I mean their destinations we will be at the airport again to bid them farewell Mane ne loolu yëpp dépasse la loolu yëpp xaalis la kon ñu ngi leen a ñaax ngeen continuer di ñu jàppale ndax su ngeen ñu jàppalee dina tax ñu gën a mun a def lépp lu ñuy def ñu gën koo mun a def 45 young people yuñ indi di leen train we will be able to add it up to 100 yi nga xam ne ñoo apply yëpp ñu jël leen ñoom ñëpp waaye suñ capacité mutut loolu kon seen loxo la ñuy amin am jëlee yéen ñun seen i gémmeñ lañ bugg a xoolee lañ lañ bugg a am waxee seen i bët lañ bugg a xoolee te seen i noppa lañ bugg a dégloo ndax suñ toppee nguur yaakaar ko ci nguur nguur mënut ñoo defal lépp te suñ ñu joxee dara kat mun ñoo wax fu ñuy xoolee suñ demee si corporate sponsors yi tamit képp ku ñu wax dara dang ñoo tënk képp ku ñu jox xaalis dang ñoo tënk ndax pour ñu wax lu baax si yow pour ñu wax ne yaa fi génn company te su boobaa duñ mun a wax lu bon si ñoom so instead of ñu rely on those corporate companies pour ñu ñoo jàppale wala nguur gi pour ñu jàppale ñu yéen ñii di ñu déglu di ñu seetaan lañ bugg pour ngeen jàppale ñu ndax su ko defee seeni bot la ñuy xoolee yéen askan bi te yéen nañu fi tax kon happy new year to all of you guys fu ñu waaye di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay di leen dalal um, farms field marshal mu ne Gambia dina dem Only your media house will not go. That's why you are doing GoFundMe every bloody blank time. Change that name. Total madness. Uh, jërëjëf uh, loolu sa gis-gis la yow. incha allah dinañ continuer di def li ñoo def ndax ñu ngee meeg progress lu bari foog naa li ma fi lim yëpp progress la for Gambian Talents ah, waaye sa xalaat la te respectal nañ la ko appreciate nañ ko ma fàttali leen rek li ñooy wax ci lu tax Gambia du dem soo saa su nekk am ñu dugg ci ne wecc leen tur bi wecc leen tur bi yàgg nañ leen koo wax undoubtedly this is one of our longest programs that have been on for over five years now lu gambe Gambia du dem show malen koy indil ak iwasar ñu fi waxtane li may def man Pa Ousmane ba tax suñu dekk du dem kanam li ngay def yow mi di ñu deglu di ñu setan ba tax suñu dekk du dem kanam ak suñu njit njiti ada, njiti dine, njiti politique ak ñeneen ñi ñuy topal li ñuy def ba tax suñu dekk du dem kanam loolu la ñuy sa suneka. su nekk kon lu am solo la pour ñu bay ko xel. dañ laajte lan Gambia du dem show lu tax Gambia du dem show kon lu am solo la pour ñu bàyyi loolu xel su fekkee ne suñ dëkk dina dem rek di ngeen ci xam dara yow mii li nga def ba tax dëkk bi dem kanam man mi li may def ba tax su dëkk du dem kanam suñu njiiti aada diine cosaan ak keneen ku fi nekk lu muy def ba tax suñu dëkk dem kanam loolu la ñuy waxtaanee ma ne lu bari nag moo xew ci dëkk bi ci wig buñ passé nii ñuy leen a gàcce mal di leen ndokkale ci beneen yoon di leen wax happy new year dellu si waat nañ pour waxtaan ak yéen tey lan la ñuy waxtaanee wig bële passé waxtaanoon nañoo ak yéen ci affaire yi congrès bi nga xam UDP def nañ ko waxtaanoon nañu ak yéen ci li nga xam ne moo di dem ci diggante président Adama Barrow ak loya Ousainou dabo. UDP versus the Baro camp is there one UDP camp or is there two UDP camps loya dabo leeral ko askan wi ne ñaari UDP amut benn UDP moo am dégg nañ ko ci ay rally dégg nañ ko ci seen congress bi bi mu ko wax ñaari UDP amut benn UDP moo amut there is nothing like UDP 2016 UDP 1996 moo fi am ci lim wax kon lii mooy loo xam ne xew na ci diggante président Adama Barrow ak Lawyer Darboe am vice président ñu waxtaan si lu bëri ne there is outright division ak animosity si diggante bi lan moo fi xew semaine bu passé ne le gis nañ président Adama Barrow dàq ay nit jël ñeneen ku mel ni lawyer Almami Fanding Tall nga xam ne legal adviser la pour am euh, OIC bi nga xam ne ñu ngi ko taxawal muy mbootaay dëkki jullit yi nekk ci àdduna bi yëpp nga xam ne juróom fukk ak juróom-ñaar juróom fukki am dëkk ak juróom-ñaari réew ñoo ci bokka juróom fukki réew ak juróom-ñaar ñoo bokka ci mbootaay boobu noonu muy OIC nga xam ne dëkki jullit yi la gannaaw United Nations bi mooy di second biggest muy mbootaay bu gën a rëy ci àdduna bi déwén ren jii ñu nekk muy 2019 ci novembre dafa am jotaay bi ñu war a am foofu ci réew réewi Gambia muy mbootaay bi nga xam ne kat dañ dee dimbale réew yi nga xam ne ñooy host wala ñoo war a am dalal gan yi ci jotaay boobu nga xam ne président yeeg buuri dëkki jullit yépp ñoo fay teew juróom fukki dëkk ak juróom ñaar OIC dëkk boobu noonu conference boobu noonu moom la Gambia war a host in November of this year 2019 ma ne ñu set up a secretariat ñi nga xam ne ñooy taxawal mbootaay boobu ci réew mi ñoom ñooy gestu pour seet to make sure liggéey bi dem na yoon to make sure conference bi kat taxawal nañ ko niñ ko war a taxawee am na ni mu war a amee muy njëriñ lu rëy njëriñ lu bari moo ci nekk pour dëkk bi mbootaay boobu su waree am meeting boobu su waree am even though ay ñaar ñetti fan meeting ñaar ñetti fan la xaalis bu bari la ñoo dugal ci réew mi te xaalis bi yëpp lu ñooy may la ma daaw gis ngeen président Adama Barrow mu commission conference centre bi nga xam ne fifty fifty million dollars la muy juróom fukki millions yi dollars loolu China ñoo ko defal Gambia en gratis free ci alafudi yëpp ngir o OIC bi conference boobu fa lañ koo defee su passé place boobu dafa nekk Gambia Gambian si di fa defee ay programme ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko war a def te su boobaa loolu dafaa njëriñ réew mi am ay doomi Gambien yuñ fa jël ñu faa liggéeyee loolu dafa njëriñ réew mi kon OIC loolu benn si projet si la ay yoon ñu ngi ko war a defal 100 kilomètres road muy road boo xam ne dañ ko war a defal mu nekk road bu nekk am am am kilomètre bu nekk wan million dollars lañ ñu jox pour loolu loolu it xaalis la boo xam ne dafaa ñëw ci réew mi pour defal yoon boobu am na hôtel yu ñooy sampa ci réew mi loo xam ne ci OIC bi airport bi ñu ngi fa war a def VIP lounge ñu war a indi ay oto yu es ci dëkk bi yëpp pour OIC bi te lii yëpp xaalis yoo xam ne la dañ ñu ko war a may pour mu njëriñ réew mi kenn si ñiy liggéey ci OIC boobu noonu mooy Omar Ann di doomi Fatmata Jallow Tambajang nga xam ne interview woon naa ko two weeks ago ci face à face ñoom ñang Njaay fa lañ nekk ñoom Essa Bokar ci fa lañ nekk ak of course ki nga xam ne si seen legal team bi la bokk muy Almami Fanding Taal nga xam ne moom mooy di spokesperson of the United Democratic Party UDP semaine bi passé kat moom lañ gis président aadama Barrow fo xarti palaasam rocc ko fa génnee ko fa ñu ne dàq na ko lan moo tax mu dàq ko ñun ñëpp réeré wuñ biir ne Almaami Fanding Tall mu ngi doon wax ci turi UDP ñaari weer yu passé nii yëpp te liñ doon wax lu bari kat nekkul lu rafet lu président Adama Barrow war a dégg wala lu koy yóbbu kanam ma ne Adama Barrow kat waxoon na ko moom président bi fan yële passé bi mu demee Basse di teg projet gi bridge bi waxoon na ko fa ne. képp a kuy liggéey ci nguur gi wala ku bokk ci nguur gi te parewuloo pour jàppale moom liggéeyam muy NDP bi di National Development palaan bi fexee la génnee sa boppa fexe la bàyyil sa boppa balam laa dàqa ma ne ñu toogaa déggal Lawyer Darboe ci ràlli moom tamit mu wax ne moom suñ ko dàqee du ko betta te loolu du ko tax a ñàkk a nelawam Lawyer loolu la wax mu ne suñ ko dàqee moom du ko betta te loolu du ko tax a ñàkk a nelawam moom kon daxar nañ almaami Fanding Tall moom mi nga xam ne si legal team bi la bokkoon ki nga xam ne mooy Youssoufa Thiam nga xam ne was the presidential adviser kenn ci ñi nga xam ne ñooy xelal président bi di ko dee moom tamit président bi foo foxarti na palaasam génnee na ko ak deputy governor of am am am am Western Region nga xam ne jël na Moussa Suso delloo ko foofu noonu def ko deputy governor of Western Region jël ko muy euh, very interesting development may faati mi nga xam ne dàqoon nañ ko ay weer ci gannaaw daanaka at ci gannaaw ñu bari di wonda di xalaat lan la may faati def be tax nguur gi war koo daaxa ba tax président bi war koo daaxa coow li ne kur si loolu ñu bari di laajte lan la may defoon may moomukat kat président bi jëlaat na ko gis nañ moom may faati ci semaine bi passé li nga xam ne mooy am euh, euh, message bi ñu yees message bi nga xam ne moom la génnee mom may fati ci semaine bi ñu genn kat waxtaan na ak askan wi di leen fàttali di leen xamal ne nañ ko jàppale képp kuy képp ku bokk si patem bi muy GMC na nga rally behind président baro, na nga rally behind government bi na nga jàppale li ñuy wax am NDP bi muy national development plan bi muy kayit googu nga xam ne la nguur gi defar ba 2021 muy ba ñaari at si kanam pour niñ war a nguur gi ci li may waxkat mu ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo sabab loolu ñoo ko commencé woon di togga soo jamono ji mu ngee ñaax waa GMC yëpp ak képp koo xam ne yaa ngee bëggee GMC te danga koy déggal moom ak Gambians yëpp nañ toppa ci gannaaw nguur gi loolu la may faati wax jamono ji nag these are interesting revelations ñu seet naka laa demee ndax daaw jéeg bi nga xamee ne yëf yi na ñu war a def élection ni am National Assembly bi am eh, coalition bi di xëccoo ndax dañ war a contest ñoom ñëpp ñu indi seen am candidates yi as coalition candidates ndax dañ waroon a dem euh, ñu mel ni UDP kat ñoo ne tactical alliance dañ doon war a foom amin pour ku nekk dem taxaw sa pati boppa samp sa ndënd boppa campagnal sa gars yi si jamono jooju gisoon nañ kat ñii di NRP ak GMC ñu join UDP muy Amat Ba joinoon na UDP ak am kii di Mai Fatty waa dooy séparé kon that was interesting moments lii mu ci xeli gambien si ba tey su ngeen ko fàttee ñu fàttali leen ko ne loolukat dara la loo xam ne xew na ci dëkk bi te dañ ko war a waxtaanee history mu ngee komaat baag Amat ba moomu nga xam ne bokkoon na ak UDP may Fatty moom nga xam ne joonoon na UDP ci jamono jooju noonu I mean at the time I mean as far as liñ doon uh, uh, gisee was concerned ci jamono jii kat he is out with président Barrow président Barrow la moo support ñenn ñi ñu ngi analyse loolu are they going to form uh, an alliance are they going to form a coalition is President Barrow going to establish his own party gis nañ yu bari yuy xew as we speak Barrow Youth Movement is very I mean am ñu ngee dem di def seeni mbir yu bari as we speak gis nañ président Barrow mu ngee mit ñu bari as we speak gis nañ président Barrow mu ngee dàq ñenn ci lëf li bokk ci UDP as we speak xam nañ ne mu ngee sampante ndaam jigéen ñi réew mi mu ngi leen a jéem a empower pour ñu foom mbootaay boo xam ne kat pour jàppale leen jàppale ko la jigéen ñooñu ñu ngee jéem toggal li ñoo def pour commencer seen mbootaay boppa pour jàppale président Barrow am na lot of logistical arrangements yoo xam ne Barrow mu koo def ci jamono jii bot en xam na lu boppa antan te kuy naan du nëbbu soo mandee feeñ kon yaakaar am na ne président Barrow mu ngi jéem a mook yu mook UDP dinañ jàppoo ni mu indiwaatee may fàtti nii tey na xel ñu bari ñu ngee seetaan nag may mu ne moom liggéey ko tax a jóg suñ ko ooyee pour mu ñëw liggéeyal dëkk bi dina tax liggéeyal dëkk bi nag let's watch and see ndaje seetaana si daaxa waaye daris is every indication ne président Adama Barrow pare naa pour sampandindi boppam loolu nag ban impact laa am ci UDP ban impact laa am ci yeneen political parties yi ban impact la moo am ci political dynamics of the Gambia loolu dinañ ko waxtaanee as we progress as we continue to see more developments ak yi happen président Adama Barrow dàq na ñooñu ñoom Almami Fanding taal ak ñoom Youssoufa Thiam mu replace leen with amin uh, Moussa Suso amin ñoom Mai Fatty and the like Almami Fanding Tall kat génn na joxe statement mu ne dina yóbbu lii ci loi bi dina dem ak ñoom ba fu mbaxana nekkee benn kon loolu ci développement si la yoo xam ne xew na fii gannaaw bi nga xamee ne amuñoon programme leneen loo xam ne xew na te ñu ngi koo gestu ñu xam ne naqari na leen te yéen a ngi bugg a ñu def ci programme mooy affaire yi xale yi nga xam ne ñu ngi leen a delloo wala ñi nga xam ne ñu ngi demoon bàkk yi ñu leen a delloo yéeg nañ ko ñu ngi leen a xamal ne fàttewuñ leen ñu ngi cee def gestu ñu ngee lijjanti and allah am na nu mu demee before di end of this week dinañ leen indil yenn interviews ñu bari nag ñu ñoo kontaan contact rawatina yéen ñu nekk ci am euh, bitim réew ñi nekk Europe yéen a ngi jaaxle wax nañ leen ne leen di EU ambassador ci indi Gambia wax na lii multiple times ne képp ku nekk biir Europe nga gooto gooto bi nga duggee foofu jox nañ la opportunité pour nga lijjanti kayit jox nañ la opportunité pour nga dugal asylum wala yow noo bëgg amee kayit apply ngeen. ñen ñi ci yéen jox nañ leen ngeen tok ñen ñi ci yéen reject nañ leen képp kuñ reject képp ko xam apply nga ñu téré la ñaka la jox jox nañ la option pour nga appeal lolu pour nga dem to the higher level so appeal ñu rejectaat ko ñu joxaat la option nga dem through all legal means lépp lu law loi jox pour nga lijeenti pour am sa kayit so démé ben nanguñ la jox kayit nak ba nga exhaust all legal means lépp lu la loi jox ci ñoom kat mu ne dañ gëm li ñoo wax rule of law muy luwaa te su boobaa loi lu mu wax kat mooy yow amul benn reason amul benn njëriñ luy war a tax nga toog ci biir dëkk bi kon dañ laa delloo ji sa dëkka kon EU dañ wax ne ñoom dañoo delloo ji ñi nga xam ne dañ nekk yurop te amuñ kayit foofu noonu te amuñ benn ground pour am kayit duñ la bàyyi rek luñ la bugg a bugg a xam nañ seen peen xam nañ sonna gi ngeen sonna coono gi ngeen daj pour dugg ci baagwe bi EU xam nañ ko xam nañ ni ngeen sonnee foofu noonu xam nañ alal ji ngeen ci dugal xam nañ ne ñeen nañ ci yéen dañeen jaay seen këri péréen si ñeen nañu seen kilifa yi jaay seen i takkaay ñeen nañu seen kilifa yi lepp xaalis ñeen nañu sax am na ñoo xam ne dañ sàcca xaalis ndoog wala jël xaalis yi seen famille yoo xam ne moomuñ ko wala leb nit wala abba nit wala def yoo xam ne kat yaakaar ngeen amoon pour dugga foofu noonu ngir tekki ngir dimbale seen boppa loolu nag ku ko daj yëpp ñu jël la nga def fa benn at ñaari at ñetti at ba foog na yaa ci nekk ñu jël la delloo si la Gambia xam nañu ne lu métti la kon ñu ñu see jéem a gestu nguur gi ngeen a wax noonu amuñ choice lenn la gaay di wax ne nguur gi ñoo jox am EU dañ jox nguur gi xaalis pour ñu dipoot booy yi ñoom ambassado bi leeral na loolu ne EU joxuñ benn booy benn government xaalis pour ñu dippoot leen EU joxe nañ xaalis pour ñu support ñi nga xam ne dañ leen delloosi ak ñi nga xam ne dañ bëgg a tukki te demaguñ ñu create ay jobs defar ay liggéey sampa ay ndënda yoo xam ne di ngeen ci mën a liggéey pour kuñ ci delloosi mu mun a dem foofu apply for a loan apply for skills ñu ngee support different mbootaay ak organisations yoo xam ne ñu ngee yëngu ci affaire yi am am am am am backway bi ci affaire yi jàppale ndaw yi ñu ngee jox ñooñu funding pour ñooñu mun a xam naka la ñoo def barki démb boo njaay rek bu fi open mic festival bi waxee am waagaan am euh, biñ fi biñ ko interview wax na ne kat yëpp muy youth empowerment project bi jàppale nañ leen ñoom ba ñu ngi indi ñenn ñoo xam ne backway returnees lañ pour ñu ñu ñëw participer si conference boobu noonu wala workshop bi nga xam ne ñu ngi ko doon def pour ñi nga xam ne dañu am interest pour join ci entertainment scene bi kon yëpp ñu ngee liggéey ak EU am ñoom ñi nga xam ne ñooy fond boobu ñu jox leen ñu bari nag ñu ngi wax accusations yu bari dañ jox nguur gi xaalis xaalis bi ñu leen jox ne nañ ko jox booy thousand dollars pour kuy ñibbi wala thousand euros nekkuñ di leen ko jox loolu yëpp ñu ngi ciy gestu ñi nga xam ne delloo nañ leen i tamit am na ñu ñu jox seen contact ñu ngi leen a jéem a rek mënuñ leen a jokku képp koo xam ne dañ la delloo ji nga nekk Gambia wala képp am xam nga kuñ delloo ji ku nekk Gambia jokkuñu si suuf nga jox ñu nomba kooku noonu dinañ ko contact we will try to interview them to hear their side of the story to hear ñoom lan lañ leen wax ak naka la fa demee loolu lañ mun a def ci affaire yi backway boobu waaye nekkul ne dañ leen gàntu ñu ngi cee gestu media dafa am ni moo demee duñ mun a toog rek ne dañoo toog ñu wax ci dara te fekka li ñoo wax óorut ñu fokk ñu gestu si am ci lu set comme liñ leen wax ni lu joggé ci ambassado bi lu ñu fenn netali ñun ñoko interview directly ambassado bi wax lool nonu so bu ngeen ñuko waxé waxee ñu ci jog nak di ci gestu té lool lu am solo la benen development la mané a ngeen dégg lu tax Gambia du dem so joggé fi ci talent TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci ganna microphone bi fu ñu di dégloo penko xarpu ngop wala ngalandu ñu ngi lay béggé di la dalal bu baaxa baaxa baax di la tatagal ci lu tax Gambia du dem show ah, képp kuy déglu ci jamono ji rek ñu ngi leen ay bu baaxa baaxa baax comme niñ koy def defee saa su nekk rek di show is live képp a ko bugg a participer mun ngaa call pour ñu nekk Amérique ñu nekk Angleterre ñu nekk Sweden 085592661 085592661 wala ngeen ci Skype Gambian Talents Radio Gambian Talents Radio wala ngeen jokkuñu ci. plus 1 404 593 6215 plus 1 404 593 6215 loolu mun ngeen ñoo jokk foofu ci whatsapp wala si Viber bi ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen santal lu tax Gambia du dem show la ah, képp a kuy déglu rek ñu ngi leen a wax ne di show is live kon ñu jël a quick break incha allah suñ dellu si waatee ñu continuer ak programme bi ñu ngee waxtaanee congrès yi nga xam ne national ah, am. Ah, parti yi nekk ci réew mi def nañ ko semaine bi passé muy dooy muy PPP muy am euh, am NRP ak GDC dinañ jokk ci seeni representatives yi wala ñenn ñi bokk ci parti yooyu pour ñu waxtaan ak ñoom suñ dellu si waatee kon ñu jël this quick break and we'll be right back don't go anywhere lu tax Gambia du dem show la jërë ngeen ñu naan teg ka du tam. Palamaatee ñu naan ka bi uram waina kala moite me feka enen te wuntama ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni cin su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a du dem lu tax Gambia du dem ñu ne sista Iva Sarr eh ñu dem pa Ousmane pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by pa Ousmane Diouf Iva Sarr oh 6 p.m. la GMT just in case you ain't know them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm let GMT just in case you ain't know Knew them, knew them, knew them Gambia <laughs> yes yes yes good morning good evening good afternoon fu ñu waaye di dégloo ci ñeneenti ñi àdduna penku xarpu ngopp walla ngalandu ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax a baax a baax yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ñu dellu si waat ak yéen rek fii ci lu tax gambie du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ah, ñu dellu si waat ak yéen rek live képp ku ñuy bëggee jërë ngeen jëf Katim Touré mu ne please push the microphone away his excellency republic mu ne yow whatsapp ah, képp ku ñuy déglu si jamono ji rek ñi nekk youtube mun ngeen a seen message allah dinañ ri seen message yi mun ngeen a call tamit pour participer ñu nekk facebook yi tamit mun ngeen a participer ah, jamono ji dellu si waat ñëwaat nañ pour waxtaan ak yéen ah, li nga xam ne mooy congrès um, yi doon xew ci weekend bu passé nii moom la ñuy waxtaanee ci jamono ji nii ah, national parties yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ah, ñu ngi doon def seen congrès gannaaw bi nga xamee ne IEC ñoo leen um, mandate muy ñi nga xam ne ñooy organise election wote sànni karta ci réew mi at bu nekk ñooñu ñoo nekk di wax gaa yi ne pati boo képp a koo xam ne da nga am pati boo xam ne da nga ko register ci réew mi te mu ngi doon fonction balaa at mi di jeex dañ war a def li ñuy wax congrès ñaari at yu nekk fi ñu nekk nii nag gis nañ semaine yële passé UDP defoon seen bos ci novembre ñoo ñu pare APRC def seen bos UDP bi ñu defee seen congrès waxtaan nañ ñu jëlaat ki nga xam ne mooy lawyer Ousseynou Dabo ak ñi doon jiite parti bi ñu bari si ñooñu ñooñu continuer nekk njiiti parti bi. am yuñ fa wécc ci seen constitution bi muy ni parti bi war a doxee am na yu bari yoo xam ne wécc nañ ko. loolu passé ñu gis APRC tamit taxawaat sampa seeni ndënd def seen congrès ñoom tamit defee woon ko bu yaam biñ ko defee ba pare ñoomkat am na yoo xam ne taxawal nañ ko pour ñaax nguur gi United Nations ECOWAS ak yeneen bootaay yi nga xam ne dañ am cër ci li former président Yaya Jammeh nekk ci biti ñu ñaax ko ne na dellu siwaat ci dëkk bi dañ bugg pour ñooñu taxaw kat jël ay jéego pour Yaya Jammeh dellu si waat ci dëkk bi ci jamono ji ñoom kat loolu lañ bugga pour Yaya Jammeh dellu si waat ci réew mi def nañ seen kéemtalaay kàttan pour meeg soo ne Yaya Jammeh dellu si waat na am ñu ne dina ñaax ñooñu pour ñooñu taxaw wax ak ñoom pour ñooñu meeg soo ne jàppale nañ leen euh, gor kàddoom li nga xam ne moom lañu waxoon Yaya Jammeh pour am Yaya dellu si waat ci biir réew mi ñoom loolu lañ bugga te loolu lañ nekk di wax ne na Yaya Jammeh dellu si ci biir réew mi su ko defee mu taxaw fii ba fii ba 2026 kon ñoom Yaya Jammeh lañ tànn na pour mu jiite seen parti bi moom lañ bëggoon tamit su élection jotee mu jiite waat leen waa APRC last week biñ fi defee show waxtaanoon nañ ci ñoom seen affaire muy APRC ñu ne leen ne kat ñu ngi leen a ndokkale ci ñoom it effort yi nga xam ne jël nañ ko pour euh, jël ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh mu nekk seen njiit waaye ñoom it ñu fàttale leen rek ne bët enowut waaye xam na lu boppa antan ndax Yaya Jammeh euh, moom yu bari yuy xew ci réew mi ne du ñëw Gambia ci jamono jiñ toll nii du ren du déwén du in 2021 du in 2026 ne dafaa ñëw pour jiite leen ñoom ndax Yaya Jammeh lii du waxi wax yëfi waxantu suy egsi ci airport bi dañ koo arrest ñu bari ñim àndaloon ñi bari ñim bokkaloon ñi génnoon ak moom ci dëkk bi dellu si waat sécurité yi dañ leen jàppa biñ dellu si ci dëkk bi ñoom umpa mendeeg ñoom dañ leen jàppaat so fuñ mënee jàpp ñooñu fuñ mënee arrest ñooñu to check and see with all these evidences that are coming out right now ndiki suba wax naa leen ko ne TRRC bi ñu ngi war a commencé seen sitting si Gambian Talents nañ grade pour wan leen loolu TRRC mooy mbootaay bi nga xam ne dañ ko sampa pour gestu tojaange yi nga xam ne def nañ ko ko accuse nañ ko ko wala jiiñ nañ ko ko ne moom Yaya Jammeh moo ko def liñ wax ci moom ne moom kat moo ko def muy rey yi ñu wax ne moko def muy toroxal yi ñu wax ne moko def gambien si muy gambien get misik ñi nga xam ne dañ réer ñi nga xam ne dañ leen wax ne dañ leen réeb képp ko xam ne ngeen yow kat victime yaaya jame nga am na toroxal toroxtaande gula gula dal ngir yaaya jame suba la ñoo commencé di déglu ñooñu seen waxtaan dinañ leen ko indil fukki waxtu si suba si ngeen toppañu incha allah dinañ leen indil waxtaan am loolu di xew foofu ci TRRC bi dinañ leen ko indil incha allah ndiki suba ngeen toppa loolu noonu dina am solo bu baax a baax a baax am euh, su loolu weesoo am Yaya Jammeh gis nañ Diané commission bi America semaine bu passé nii la gars yi mujjee indi am euh, loolu noonu semaine bu passé nii lagaay gars yi mujjee indi li nga xam ne mooy America jiiñ nañ ko ne baan nañ ko moom ak njabootam yëpp pour bu mu duggaat biir America fi nii ndax dañ ne dañ am évidence ne daf involve woon ci corruption muy yëfi njuuj njaaj ci koom-koomi réew mi Diané commission baa ngi noonu taxaw yu bari ñoo nekk di xew yoo xam ne nekkut in of Yaya Jammeh tax ñun ñu mëna wax li ñoo wax ni ne yaa du ñëwaat biir Gambia ci coobere boppam ndax xam na su ñëwee lu ko xaar foofu noonu lii du pour ragalloo kenn o anything waaye definitely xamal ngeen loolu seen boppa ñu bari si yéen xamal ngeen loolu seen boppa su xewee macha kon loolu mooy li nga xam ne moo xewoon foofu ca APRC am semaine bi passé nii ñu gis yeneen parties génn pour def seen am congress ñen ñi ci ñooñu was um, GDC Mama Kande ak GDC defoon nañ seen congress fele ca Basse lañ ko defé woon semaine bu passé ni weekend bi friday saturday ak sunday yëpp dégg ngeen gaay def seen congress bi ah, ñu indi ngeen gisoon loolu ci internet bi everywhere it was there ñetti fan la ko gaay def ñoom tamit muy lo xamne ne ñu bari ñu ko doon rafetlu ko doon through multiple platforms it's unfortunate mënuñ leen wona indil ben si congrès yi nga xamne ñu doon happen last week ah, lulu dina jël opportunité bi pour wax ko ah, ndax ñu bari ñu ngi doon gestu amna ñu ñu kool sax di ñu laaj ah gisuñ leen ci PPP sen congrès bi gisuñ leen ci GDC yalla dafa defoon ñu amone yeneen commitments yo xamne ne they came earlier before guys sen congrès yooyu nono yalla def na itamit amuñ capacité bi ak human resource bi ak matériel resource bi pour mëna nek ci congrès yoy yëpp yi be base lañ ko doon défé muy waa GDC dooya ngi doon défé be ngéyeen sànjaal am euh, euh, NRP ñu ngi doon défé be jaara sooma man sa konko PPP ñoo nekkon fofu ci kombo gi kon li moy lo xamné lu xew ñu ngi leen a ñaax yéen ñu ñuy seetaan ci Facebook bi if you look on the right side of seen am um, uh, fi ngeen ñoo seetaanee at the bottom next to the comment section di ngeen fa gis benn green circle with a green button circle boobu noonu su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured ku where you can donate us five dollars a month nga xam ne crédit yi ñoo jënda dinañ ko si mun a jënda internet bi ñoo use nañ ko si mun a jënda transportation ak lodging ak feeding ak accommodation dinañ ko mun a provide ndax ñii yu si bari parti yi amuñ any budget they expect us to go and cover it and cover it for free amuñ budget suñ waroon a dem Géen Sanjal suñ dëkkuwaay suñ lekk suñ transportation is gonna be on us suñ waroon a dem Basse the same thing yi nii yëpp gaa yi nekkoon lolu xaalis akoy def yen ñi nga xamne yeen ay béggee pati yoyu ngeen bëgg ko def ngeen bëgg ñu ko, koob ak ngeen bëgg ñu leena indi lolu dinañ apprécier tu fekkee ne jàppale ngeen ñu inshallah allah pour ñu am a am participer ci lolu nonu kon ñu ngi leena ñaax bu baaxa baaxa baax pour ngeen jàppale ñu ndax su ngeen ñu dina am solo dina tax ñu mëna indi yu bare bare bare kon pati yoyu li doon xew fofu nonu duñ def daral duñ ñu indil leen ñi nga xamne ne ñoo ci pati yoyu ñen ñi ci ñom ndax guddina be pare su ko defee ñu jéem jàppale yenn si vidéos yooyu noonu rek ci li nga xam ne moom la parti lii day wax wala li nga xam ne moo xewoon foofu noonu kon duñ def dara lu ñu dem ba Gambia contact ki nga xam ne mooy MC Cham Junior of the GDC of course ñu waxtaan ak moom ah, mu xamal ñu li nga xam ne moo xew foofu noonu ah, ci ñoom seen congrès bi ci jamono ji passé weekend bu passé ah, MC Cham Junior moom mi nga xam ne gars GDC mobiliser nañ ko electaat euh, nañ ko pour mu nekk seen youth leader bi kon ñu contact MC Cham Junior bu leen wax dara yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show TV kon ñu indi leen MC Cham Junior rek jërë ngeen jëf. balaa la mooy demee fekka sa morom mel xam naa su desoon si yéen du nokki or man yokkal bi ndax na toog du lu tax Gambia du dem ba saa Junior la ñuy jokk noonu moom mi nga xam ne ci GDC la bokk waxtaan ak moom li nga xam ne moo xew foofu ci ñoom seen congrès bi semaine ah, dafa mel ni mu ngi xaw a guddi ci Gambia is almost 10 o'clock waaye dinañ su fekkee ne jëlul téléphone bi rek oh he is not available incha allah dinañ xam ne ñoo bokk ci yeneen parti yi ah, pour waxtaan ak ñoom kon ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax a baax di leen gërëm santa si seen déglu ak seen seetaan bu rafet lu tax Gambia du dem show la di show is life mun ngeen a participer by calling 678 608 3322 pour ñu nekk America 678 608 3322 ñu nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 ñu nekk Sweden 08559 26651 08559 26651 kon ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ah, fu ci waay nekk rek ci ñeneente ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax kon duñ def dara lu ñu jokk ki nga xam ne mooy ah, Aminata Koore mom nga xamne she is a member of the PPP ah, nga xamne mu ngi taxaw as a national assembly member for PPP ci jamono jiñ passé ne le last national assembly election bi dinañ joko Aminata Kori pour waxtaan ak mom don't go anywhere Hello. Hello, assalamualaikum. alaikum. Huh? hello assalamualaikum. Ya? Assalamualaikum, aminata oh walaikum salam naka nga def walaikum salam pa Ousmane Diouf ci Gambian Talents TV. hello. Wa Aminata ñu ngi laa dégg loud and clear naka nga def. hello. Aminata I can hear you loud and clear ma ngi dégg loud and clear naka nga def Aminata. hello aminata dafa mel aminata laayinam bi dafa dog dinañ ko jokkuwaat rek one more time pour djema wax ak mom dafa mel ni nekkutoon dañu dégg ñu ngi djéggalu ci lolu bu baax baax baax koku moy aminata boole nga xamné is a member of the league hello aminata hello wa naka nga def jaam rek Pa Ousmane Diouf mang la laa live on Gambian Talents TV Pa Ousmane na ngeen def ni ñu ngi laa fay bu baax a baax a baax euh, ngi live on the Gambian Talent TV ci jamono ji allo waaw ma ne yaa ngi live ci jamono ji yaa ngi ñoo dégg Aminata hello Aminata hello waaw Aminata waaw ñu ngi laa ma network ba nekk baaxut waaw maa laa dégg yaa ngi ñoo dégg ok ma ñu ngi la yaa ngi live on the Gambian Talent TV You are live on the Gambian Talents. Wow. Aminata? Hello? Wow, Aminata? Wow, it's still breaking. xala dégguma la woon du brégaat léegi am na lu ma doon fix benn technical issue fii rek waaye du brégaat léegi ma ne ñu ngi laa dalal fii ci Gambian Talents TV Mm-hmm. ñu ngi laa ndokkale bu baax a baax you contested as a national assembly member under the PPP um, uh, mm-hmm. few years ago bi nga xamee national assembly election yi mu ngi go on uh, yàlla def nag um, mm-hmm. you um, did not win but you are a strong member of the party still if I uh, understand ndax da nga cross capet yow ndax cross cross <laughs> da nga cross capet dama cross ma capet cross lo capet <laughs> déedéet man fi ma nekkoon fa laa nekk léegi fa nga nekk léegi ok waaw seen élection si <laughs> passé na it mm-hmm. was very interesting PPP ñu mm-hmm. dégg la waaw seen parti baa ngi jaxasoo de ñu nañ foogoon ne ay UDP rek am problème waaye PPP a ngi jaxasoo de Amina <laughs> non ñu suñu parti bi jaxasoowut <laughs> jaxasoowut Aminata yi yéen ngeen def élection ñu ne indil nañ leen Papa Ndiaye gars yi ñu ne Papa Ndiaye bokkut si parti bi approuve guñ approuve guñ membership am sax nekkagul même ba ngeen jël ko def ko seen jiit non bul déega loolu loolu daal wax yooyu daal hmm. taxawut daal loolu bul déega tax wax yooyu taxawut yoonu yoruwut ma yoruwut maanaam yoruwut is a bona member of your party PPP yes indeed he is kañ ndax Papa Ndiaye gis nañ ne na am um, na lifin mayoral elections yi he contested under UDP um, uh, la doon bugg a ñu jël ko ñu ñu nanguwuñ mu dem independent léegi all of a sudden si mhm. seen con um, press conference bi ngeen def two weeks ago foofu lañ njëkk a déggee di ne Papa Ndiaye is a member ngeen justify ko with ne papaam dafa jàppale parti bi papi Papa Ndiaye jàppale parti bi taxul moom mu bokkadi ñee nañu ñu ngi ko jël ne he just has a presidential inspiration wala place moo ko ñor rek moo tax mu ñëw ci yéen dem na UDP jëluñ ko dem na indépendant jëluñ ko léegi UDP naka PPP ñoo ko nangoo jox pour mu nekk seen njiit moo tax. Hmm? waaw waaye boo ko seetloo boo ko seetloo ci time uh, mayoral election si. Hmm. bi mu taxawee bi mu bëggee taxaw UDP uh, mu gis ne um, hmm. sélection bi faya wëpp mu taxaw indépendant. PPP dañ ñëw ñu boot ko. ñu boot ko ñu support ko through his campaign. yàlla def gañewul si time yi independent bi ci time yi independent bi ñëw nañ ko boot ko support ko through his campaign mm-hmm. yàlla def gañewut mm-hmm. kon mun nañoo wax ne suñ jokkoo ak Papa Ndiaye mm-hmm. commencé wut léegi depuis time boobu la commencé te bim buggee taxaw mayoral election ah, wax naa UDP ñëw na si ñun wax nañu lan mooy intentional waaye wanoon nañu ndam ne UDP ticket la moo taxaw understand nga soo bi loolu demutee true ñun ñëw nañ ñu boot ko ñu campagnal ko ñu jàppale ko mm-hmm. waa so loolu is I think that is evident evidence loolu am na so duñ mun a wax ne rek two weeks ago la Papa Njie ñëw ah, PBB ok ñu ah, ne it's evident naka la ñoo mun a xam where is the evidence Where is the, evidence? You, you know, one on one. I think there was a press release. You want to know we are supporting uh, Papanjaya as a candidate, okay. acting candidate Bibango. mm Apart from Ganaulo, Lutamitunjaya ang si ground bi di ko japale. Mm-hmm. That was evident. Mm-hmm. Ne ñun japale nañ ko si ground bi mm-hmm. te campaign ni ñoo mom. Mm-hmm. Wa jamono ji kay ñu tollu ni am okay Papa Ndiaye def election si ñoom Bibi Dabo letter boobu génna. Do you know if that letter is authentic? Bibi Dabo ak Yaya Cissé ak mm-hmm. who is the next person again Mr. Um, ñoom ñetta ñoo ñoo sign letter waaw ñoom ñetta ñoo sign they I doubt I doubt it's authenticity because letter bi ci boppam is not signed waaw it's not signed waaye ñoom ñetta la fa seen tur nekka waaw ñoom la fa seen tur but letter bi is not signed kon mm-hmm. I doubt the authenticity of the letter mm-hmm. te yaakaar naa ne uh, en tant que parti mu mel ni kër mhm. bu dee issue am na de am na mhm. ah, there is a central committee mhm. dala ñoo génne lettre di ko yóbbu si biti there is a central committee mun ngeen a petition central committee bi ñu review seen allegations si balaa ngeen a dem si biti di yóbbu lettre lettre bi was never signed te liñ gis mooy ne Bibi Dabo interview bi mu def li mu wax mooy ne ah, ak Mamouss TV li mu leen wax mooy ne moom disputed results yi ba si élection si bi bi daabo joxe na speech mm-hmm. wane ne moom he has lost elections mm-hmm. congratulate na Papa Njie mm-hmm. kon suñ gisee mu gannaaw loolu mu joxe interview kon loolu dafa gën a dalal suñ xel te ba léegi génnewut si media bi mu dispute results yi waaw leetar boobu génne na ñun dañ koo ñaawlu te we still hope ne jógewut si ñi nga xam ne ñoo ne si ñoom la jógee because according to the information bi ma get am na media house bu leen invite ne la ne nañ ñëw ñu joxe um, extra information comme que ñoom ñoo indi letter bi nañ ñëw ñu joxe more information mm-hmm. waaye da tey kenn nanguuta dem joxe more information mm-hmm. kon bu doon ne uh, um, naka sa allegations yooyu xool na waat ak nañ doon mën a gir nañu wax ok jot nañ information ne Bibi Dabo am contributu dara si seen congress bi yi lan nga ñu mën a wax ci loolu waaw ah ni ngeen ko déggee noonu laa ko déggee ah, according to our committee ah, contributed si committee eh, according to our committee committee si fa ak suñ executive bi um, contributed dara. contributed dara financially. waaye dégg nañ tamit audio bu saakuleet ak ki ñuy wax Musti Jaabang tamit génn na def audio di wax ne am mhm. ah, di explain ne mhm. bi bi dafa demoon ci délégué si di leen jox xaalis amin pour bribe la mhm. jënda seen carte ah. yow lan nga ñu mëna wax ci mhm. audio bu ko accompagné nak amul fenn way audio bi accompagné nako, nga dégg gaay ñu ngi xuloo di ne li mo xew ci PPP amin bi bi daf doon contribute jënd gaay financially tegut xaalis pour mhm. jappalé parti bi ci congrès bi waaye mun dem pour jënd délégué ci pour jox leen xaalis pour jënd seeni carte ah. lolu lan nga ñu ci mëna wax am wax ci um, night before um, election fee mooy ne biñ cancel election fee because uh, 28 29 la woon on 29 you cancel election fee mm-hmm. so mu nekk on the 30th the following day bi nga xam ne ñu wrap up um, election fee mm-hmm. um, let's say around 12 lang waroon a wrap up unfortunately mm-hmm. day boobu lañ conduct election fee mu yóbbu ñu bee ci ngoon ba si ba si ba si evening bi so night before loolu ñun ci lañ demoon pour check suñ délégué si because délégué si buñ committee, comité si ñu ngi doon liggéey ak ñoom logistique dalal nañ leen jox nañ leen uh, ñi doon toogal ñu doon toogal di leen jox lekka mm-hmm. so for that being the reason ñun ñu dellu pour check suñ délégué ci guddi googu noonu so discussions mu ngi doon am within the committee members ak yooyu noonu ak within the delegates mm-hmm. so honorable Bibi Daba ñëw so biñ na honorable bi bi daama ñëw na mu doon discuss ak délégate si so um, after am ku ñëw nañu ne bi daa daama da joxe na xaalis ñaata xaalis den ci biir loolu non xaw ma ñaata xaw ma ñaata la joxe dañ ne joxe na xaalis mm-hmm. bot kooku dafa dellu si waat ñëw indil ñu audio bi mm-hmm. mooy ne bi mu joxee xaalis dem dem délégate si ñu doon discuss ñoom seen biir ñu ngee wax ne two thousand four hundred ci biir audio bi yaa ngi ko dégga two thousand four hundred mhm. ba buñ demee ba ñu ngee ne foo ñi mu ngi fi kii ak mu ngi fi ak mhm. yooyu noonu mhm. understand ga so ñu ngee wax ne waaw euh, naka sa joxe nañ xaalis si lekka ba joxe nañ lekka ba xaalis si lekka ba pare loolu yëpp ñu ngi ko discuss ci audio bi so ñun loolu man loolu dama ko ñaawlu because li mu tax maa koy ñaawlu mooy ne there is a committee responsible for food logistics and everything bu doon ne moom en tant que euh, candidate Mm-hmm. bëggoon naa jàppale parti bi mm-hmm. dafa ñëw ne lii mooy suma dool yi mm-hmm. si si si si si bi waaye ñëw jox ko directly um, délégué si man loolu dama ko ñaawlu torop oh, ok so yow um, uh, foog nga ne results yi to the best of your knowledge is free and fair <laughs> ah man de xam naa ne results yi jalkati mënu faa am mm. lu tax jalkati mënu faa am mooy ne um, naka tuddaa si maskalis moo amoon biñ demee prior to the elections mhm. gars yi dem nañ ci kaw gi mhm. pour make sure um, délégués si mun a ñëw pour tànn délégués committee set up ñu tànn délégués délégués si mun a ñëw mhm. Papa Ndiaye dem na Bibi Dabo dem na suñ chairman uh, um, Keba suñ chairman uh, Alhaji Keba waaw Keba Jallow dem na um, Talibo Konjira dem na ak ñeneen ànd nañoo ñoom You make sure ñu set up some committees The areas you amut committees you set up some committees mm-hmm. make sure ñu indi uh, ñu binda délégué si ñi nga xam ne ñoo war a ñëw mm-hmm. pour pour sànni seen karta mm-hmm. ci biir loolu tam délégué si biñ ñëwee um, day of the day day of the um, elections itself dañ make sure dañ delluwaat uh, list bi use master list bi ràññee délégué si ku nekk ñu oo sa tur bu dee délégué ñu wan la ne a délégué nga demal nga toog seen area each a ward ten ten people ba mm-hmm. mu mut élection si tamit um, biñ ko doon conduct wane nañ ne génne nañ box yi wane ne dara nekk fa mm-hmm. pictures yi nga xam ne moom lañ provide mm-hmm. uh, Bibi Dabo indi pictures am papa indi pictures am ñu come up with an idea of security ñu provide stamp p stamp bi ñu stamp ko si table bi foofu noonu si kanam ñëpp ñu stamp ko foofu um, two representative of each of the candidates ñu sign si gannaaw on each picture two signature moo fa nekka mm-hmm. kon jalkati mënu faa am ñu compté ko foofu mm-hmm. IEC ñu ngi fa toog pour observe mm-hmm. ñu make sure comme ka bii daa bu moo oote ne nañ def secret balloting because ñun dañ ko bëggoon a def bu yomb bi waaye moo mën a secret moo tax ñu canceloon suñ previous election day bi def ko di following day secret balloting moo am am security ñu ngi taxawoon boor boobu kon foofu jut eh, jalkati mënu faa am mm-hmm. résolve si table bi lañ ko compté mm-hmm. ñu déclaré résolve mm-hmm. kon foofu gisuma fa benn juuj njaaj bu fa mën a am te AIC e ñu ngi fa woon compté nañ résolve si confirme nañ ko kon foofu njuuj njaaj mënu faa am <laughs> non ma laa wax loolu waaye man xam naa ne daal Pa Ousmane eh, dafa am lu am mm. mooy ne soo xoolee Gambie dañ dee ne ndaw ñi ñoo ëppa ci population ni ndaw ñi ñoo ëppa kon man dama yaakaar ne jot na fu mu nii ñu jàppale ndaw ñi prepare leen ah, for the future role of leadership noo noo xaaral rek ma ñëw <laughs> man non non dafa jot Gambia dafa jot pour mag ñi ñu boot ndaw ñi mag ñi ñu boot ndaw ji uh, Bibi Dagomone mm-hmm. a bigger threat to UDP, and there is no doubt right now in the UDP, am nañ doole bu And um, mm-hmm. um, uh, most likely, they uh, they stand a mm-hmm. better chance than any other party right now. It's the bottom line based on sen mm-hmm. force. am nañ unless seen digganteeg baro nim ñaga But then poor mm-hmm. challenge lolu, Bibi Dabo was definitely going to be a big challenge, not only even to UDP but all other political parties and of course pour UDP uh-huh. pour PPP ñëwaat I mean da ngeen ni that leadership bi bi mënoon na moo ñëw mu lead I mean lesee gars yi prepare ñu mel ni Papa Ndiaye then after moom mu bàyyi Papa Ndiaye take over by next election 2026 or something because Papa Ndiaye is still young and has a good I mean am um, am um, future what is your reaction to those ah. people who feel again jën da ngeen make a big mistake by getting Papa Ndiaye because he's not ready Bibi could have set the ground pour Papa Ndiaye ñëw take over dama laa delloo rek si li ma doon wax fi mu nekk nii mm-hmm. ñun we are inspired by young leadership fu mu nekk nii dafa jot tamit pour ndaw ñi ñu jëg ñu teggee right rightful place in politics politics nekkul rek pour mag ñi la noo xaaral maa ngee ñëw politics rek nekkul na pour mag ñi la it's high time ndaw ñi tam ñu am opportunity mm-hmm. soo ko seetloo for for over the decade ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba léegi ñoo jiite e léegi. waaw waaye xëccoo boobu loolu make na sense waaye xëccoo boobu gars yi am nañ niñ ko exactly su ñëwee su ñëwee si another way su ñëwee si another way ñëwee si beneen side bi mhm. ah, liñ ne Bibi Daba could be a threat ah, to UDP ñun ñun ñun ñun loolu lu hard call it we are not much concerned about that because li tax ma wax loolu Bibi Daba suñ ne Demba is okay man ne Demba is back Mhm. understand nga mhm. because bu dee bii bii daabo mhm. revive PPP moo ko ñor loolu loolu dina leer Gambia yëpp ah, bu dee ne nag position waaw bu dee ne position yi secrétaire général moo ko ñor loolu loolu dina leer Gambia yëpp waaw waaye am na ñuy wax ne su lu dul yaaga tuuti waaw su dee ndaw yi ngeen a wax ne ok na ndaw yi jël over na mag ñi bàyyee ndaw yi ndaw yi yaaya jël bi moo jël over réew mi ndaw la woon gis nañ ne mujjee he came at 29 Mhm. waa Saa Dawda Saa Dawda Kairaba Jawara bi mu doon jël ñaata at la am. the same thing Saa Dawda was also very young bi moo jël over. yeah exactly party leaders yi ñu si bari si ñoom bi ñoo commencé they mhm. were as old because ñoom doya ñi exactly ñoom yëpp bi ñoo form am doya gi ñoom they were all very young si mhm. jamono jooju but they were very young léegi kon am yëfi leadership boobu noonu ndaw su ñëwee léegi ban difference la make because ñooñu biñ fa took ay ndaw lañ woon waaw exactly loolu moo tax ma ne jot na nag pour gars yi prepare ndaw ñi for leadership because li gis Africa mooy ne mag yi dañoo dem be am seventy years ba tey ñuy ron ñuy ron for office Be eighty years ñuy run for office waa legi wax ma ku am eighty years am ninety years yow boo demee office loo faa def because yow sa xel commencé na wàññeeku <laughs> yow commencé ngaa naax non waaw commencé ngaa naax ah. yow boo boo demee office yow loo faa def hmm. understand nga mm-hmm. man li ma fiil ne xam ga xam nga xam nga naka coiati nguur du dono mm-hmm. understand nga mm-hmm. nguur du ne yaa ko gën a ya xaw ma nit yaa ko gën a la ñuy wax comme ni si yow la gën a jekkee loolu du nguur nit ñi yaa leen di doy ñu tànn la jox la pour nga jiite leen te nguur dénkaane la loolu baax na suñ suñ suñ suñ ak suñ ak suñ président si Because ko bàyyi xel ne nguur dénkaane la buñ la dénkee alali réew mi <laughs> buñ la dénk waaw li ma feel mooy ne ah, I feel that how to call it in Africa we have this problem that um you know people intend to run for office until they are 80 years old they still contest they want to contest for elections when I believe they are uh, younger people who are more competent to run for office because if you come of age up to 80, you know, a, lot of your abilities have started to come down because you, you're already getting you're already old. It is quite important for us to know that, um, how to call it, for you to be, to be given the mandate to govern people. That is, you, be entrust, you have been entrusted by the people to govern them. You have been entrusted with their resources so to manage their resources. Leadership should not be inherited. That's one of the things you said. It should not be inherited. It should not be inherited. It is an entrustment from the people to manage their resources, to manage the country for a certain duration of time. But we have seen our people, they intend to clean. We have seen our leaders today, they intend to clean on, on, on, on, on, on, on, on how to call it, on, on, on power. Refusing to give way, feeling that they're, they're the only people competent to lead the people. Okay. Oje ci beneen yoon ñuy rafetlu moom lim def mhm. waxoon na ko te wane na ko mhm. jëfee na ko mhm. ne moom du taxawaat ñun interview nañ ko ci Tambambalu show mu ne moom amul benn intention pour taxawaat for election ah, lim def nag ah, ñim fa nekkaloon ñooñu is a great form of leadership because all the political parties re-elected the same people PPP ak UDP wat nañ ci ne Amat Ba wat nañ ko doy of course electuñ sen leadership bi but most likely ñom khalifa ñoy nekkaat di leadership I mean so PPP aussi ñëw relinquish the responsibility pour jox ñi mm-hmm. chance yow naka nga mm-hmm. gisee lolu man ni mako ko gisee mooy ne dama ko rafetlu dama ko rafetlu ngir ah, gis na ne man political party bu ma bokk pare nañ pour jox ndaw ñi chance and ñu ne nit euh, wax waxeet baaxut kon paa bi lii moo tax soo gisee ñun ñu doon xeexal ne na ndaw ñëw yëfi wax waxeet dañ ko bëgg a tege sele maanaam gor kàddu waaw kon liñ waxoon ne PPP pare na pour jox ndaw ñi caan loolu lañ fi wone fu mu nekk nii mhm. te man ni ma seetlu keroog ci congrès bi mooy ne a rebirth of the party mhm. since 92 suñ last congress bi li ma gis mooy a rebirth of the party ñun pare nañ pour jël suñu rightful place into Gam in politics pare nañ pour jël suñu rightful place in Gambian politics waaye ñu bari dañ foogoon ne yow la di yow yaay bëkkaneegi OJ ñu bari dañ foogoon ne yow yow la yow la yow la OJ doo pare lese di man parewuma yaay samp ci ndenda ah ñu bari dañ foogoon ne yow non non non man parewuma man pareeguma your Um, uh, Manfarelma. What is your position as executive? Right now, I am not an executive member. You are not. I am not an exec. I am not a member of the executive. I am a member of the central committee, but I'm not a member of the executive. I am not a ne of the central committee but I'm a member of the central committee but I am a member of the party and I'm going to support the party. Mm-hmm. you had interest in politics you don't have interest mm -hmm. to run what's what's the thing xanaa li nga taxawoon as national assembly wiinuloo moo la discourage ndax lan <laughs> you are very bright you are very smart you no no there is a reason this is a personal this is a personal issue so gisee no <laughs> no man li ma feel mooy ne li ma feel mooy ne there is a time for everything hmm. and um mu nekk nii du ma run for du run uh, how to call it du political position so for people waaw no no no no no there is a reason it nekku ne bëgguma jël responsibility there is a reason for that hmm. nekku ne bëgguma jël responsibility hmm. uh, for that being the case naka uh, tuddaa si xam naa ne wax bi bu jotee rek su neexee yàlla dinaa jël suma rightful place um, in politics dafa am lu tax <laughs> amin ah su boobaa su boobaa ngeen xam ne presiden boobaa ngeen wow. ne njaago président du noonu waaw waaw waaw baax na di jaajëfal mbokki déglukat yi hmm. yëpp um, te di leen si at mu ees mi te hmm. um, di wax ñëpp ne Gambia suñ bos la te Euh, comme que ñun ñoo ko bokk nag buñ na ko difference bu mu tax we are distracted as to what is important to us. Mm-hmm. what is important to us mooy we are in a transition period. Euh, si biir fii nii lañ mun a defaree suñ démocratie ñu consolider suñ démocratie ci biir lii lañ mun a make sure suñ institution si ñu suñ institution we build our institution you make sure there are strong institutions like the judiciary, um, how to call it, the National Assembly, uh, to make sure there is a uh, check and balance. And um, Gambia from Nekani, of the rightful place in Africa. Mm-hmm. To um, Warna yo focus, an agenda for development. You know, Lolo mo Warna Neka focus. Gisnane, we are distracted by politics and so on. waaye li am solo mooy ne rek réew mi ñun ñoo ko bokkate li ñoo ñaan mooy réew mi dem kanam gannaaw loolu leneen li ma bëgg a wax mooy ne PPP ah, as a political party ñun luñ mën a gis rek mooy ne ah, comme que suñ papa bii bii daa ba dellu si waat na mm-hmm. li ñoo ñaan mooy ne na ñëpp nekk benn benn PPP moo mën a am ñaari PPP mënut a am na ñëpp nekk benn for the good of the party mm-hmm. foog ñu mun a ñëw together ñu mun a liggéey difference mun naa am ku nekk mun ngaa am sa choice of candidate mm-hmm. election is win and lose bu loolu paasee mun na ñëw liggéey together for the good of the party man lii laa amoon pour wax may ñaanal ñëpp jàmm mhm. asalaamaaleykum ah, waaleykum salaam jërë ngeen jëf kooku mooy Aminata Koye dégg ngeen politiciens yi de matta la fuuf ndeysaan li gaa di wax du la gaare la papa Ndiaye la faral gune yi la faral waaye dégg ak yéen ndeysaan ni mu rafetalee kàddu gi felenku laayu na toog na ñu ngi ko bëggee bu baax a baax a baax comme ñu leen ko waxee waa PPP lañ doon waxtaanal ko koy Aminata Kory dinañ jokk MC Cham of the GDC rek pour waxtaan ak moom jërëjëf Aminata ñu ngi apprécier ah, waxtaan bi nga doon waxtaan ak ñun kon yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem show live fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna ko xaat po ngop wala ngalandu rek ñu ngi lay bëggee di la dalal bu baaxa baaxa baax di leen wax ne di show is live 6786083322 6786083322 moy di number to dial fu ci way nekk ci ñeneenti ko ñi aduna jere ngeen def ñu delu ci waat rek inshallah allah ak yeen onde lu tax gambe du dem show di show is live right now Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi and don't go anywhere we'll take a quick break and we'll be right back ah, ñu jokk keneen don't go anywhere. Mate, Nunan, take a beat to them.

just in case you ain't know. Knew them, knew them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambian Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm la GMT just in case you ain't know New dem new dem new dem pare ñaanal pare ñaanal Gambia Usman bi Usman la yow moom lañ bokk Yim ko sa bopp sa bopp Killer A Sunday Monday balaa maa dee ñu naan dëkk bi du balaa maa ñu naan dëkk bi du dem waaye la mooy demee fekk ay nekk wuñ jàmm ku nekk bëgg a wan na sa morom mel ni jën xam naa su desoon. allo allo. maaleykum salaam. MC naka nga def. maa ngi fa alhamdulilah. Pa Ousmane Diouf lay koolee live ci Gambian Talents TV. jërëjëf waay Pa Ousmane na nga def. sant yàlla ya, bu baax a baax a baax. ñu ngi lay ah. bégg. waaw dokkale rek. waaw nah, ah, jërëjëf kontaan naa thank you very much. dañ dee toog rek call leen yow time buñ la callee your doors are always open for us. and open waaw for sure rek oh, yeah definitely. bunta pour ñun. ñu ñëwoon rek. waaw la tey di la ndokkale macha allah gis nañ GDC ngeen def seen congrès bi. Ah, waaw wii passé nii si Basse. muy loo xam ne ñetti fan programme. Hmm. ngeen nekk base lekkoo naanoo peccoo liggéey nag liggéey bu am solo kuy xalam di si jaayu ñu gis nag sa victory celebration bi nga def gaay yu di si sànnaat la rek nga jiite ndaw yi eh, ñu bugg laa laaj ci ci loolu rek parti yi doon def seen congrès yëpp ñu ngi jos jógee waxtaan ak Aminata Kori of PPP eh, ñu buggoon a waxtaan ak yow pour nga wax ñu seen congrès bi Mama ngeen tàndaat à seen jiit ñu bari si yéen ngeen ñëwaat am na ñoo xam ne ñu ngeen ngi lu loolu am ñoo xam ne ñu ngi naan pati Gambia yëpp benn la ndax biñ demaatee expecto ne change dina am foofu noonu waaye ñoom ñëpp gis ngeen leen buru foofu ko poriñ da ngeen ñëwaat rek tànnaat bi seen people euh, ñi ngeen jëloon ngeen tànnaat euh, ci jamono ji teg leen foofu noonu yow lan mooy sa am euh, response ñiy wax loolu ne GDC kat waroon nañoo tànn am a new leadership basically waaw jërëjëf Pa xool naa ne ñooñu ñu ngi mis ko GDC bu ko GDC yàggut ñaari at la am Mama mm-hmm. Kandeh yàggut as as parti leader ah, moom kañ la fay ah, moom bii mooy first time bu dem congrès pour gis say ñoom suñu waxee ne ah, affaire yi ñu yàgga ñoo fa nekk ba léegi man bu duma ko nangu mm-hmm. waaw lu ko GDC parti bu ndaw la bii mooy two years am ñu dem congrès ba tey flag bi la bu ko suñ GDC dafa nekk politique parti bu nga xam ne mm-hmm. suñ constant bi dafa ne every two term facilité bu nekk tout le temps nga faa nekk. rek soo mu nekk nii waaw Kandé mu nekk nii mu ngi dugg si ci foos léegi. Mm-hmm. xam nga su demee ba five years tam di orat five years tam ñu ko beneen stratégie la diggante bi tam ku nekk am nga right mm-hmm. bu ko bu ñu demee congress then announce all the position vacant from the party leader bi si suñu ñëpp mm-hmm. man I was the youth mobilizer of the GDC but then feel like ne my work is good and ñu gis ñu make ma pour ma nekk the bu ma demee itam dem naa taxaw ma am ma defoon oppose am na ñeneen place yoo xam ne ay ni cëram nañ ko am nga gis na ay pulam pul dem na si élection su am na si annuel dañ leen oppose tam waaye jiidi moom démocratie moom ne ñu ngi ko wax ñu ngi koo participer ñu waaw. so yow foog nga ne élection bi was free and fair. waaw di élection was free and fair. élection bi yéen jiidi naka PPP dégg nañ coow li fa amoon. amin gars yi war a def secret ballot yéen seen bopp secret ballot ngeen def ndax amin open voting ngeen def ku nekk risaha naka yéen seen voting process non ñusi bo si nekkee day si taay nekkee taay am na dañuy def euh, box yi hmm. ne day si taay itam ngeen négocier yéen yéen neen as candidate ngeen waxtaan ñu may chance hmm. nekkee ne bàyyante wala seen morom ngeen dem élections hmm. But unfortunately, the issue was well organized and everybody go them election them go peacefully and it was free and fair. Mm -hmm. And everyone was happy. That's why any problem I would mm-hmm. we celebrate in the content we could say him again. Mama Kande jàllale na message first day yëf yi mu wax ah, gis nañ ne yéen délégation bu jógee loolu am na ñoo xam ne ñu ne tee na xel de Guinée xanaa li Mama Kandeh nekk Paul moo tax président ni Guinée bi dafa bëgg a jàppale Mama pour politique over dëkk bi ñoo ko nekk di support parti bi ñoo leen a foon lan nga am pour tontu ñiy xalaatee noonu. loolu waaw loolu loolu ne am na délégation bu jógee ba Guinée nag ah. Mama moo ko. waaw Guinée ak Sénégal Guinée ak Sénégal yëpp ak Sénégal sax bokk na si APR. Mhm. waaw waaw après am na mooy pati Macky Sall bi tam gars yi yónnee ñu ay délégués tam loolu moo laa wan ne jaama la rek diggante dafa taxal diggante la rek daal loolu dara nekku si waaw dafa laa wan ne Mama Kandeh am di connexion mu nekk am na moom jaama so si invité yeneen xam nga bot enowul xam na lu bopp antan waaye Guinée waaw wane wane wane wane si nekkee waaw maanaam nga Guinée ak Sénégal Macky Sall yónnee na yónnee na ndawam mu ñëw ñëw fu Guinée tam yónnee na loolu dara nekku si moo laa woon ne diggante ECOWAS countries la rek loolu dara nekku si hmm. so I think that his political party dafa nekk a ah, nekku only in Gambia but dafa dem si itam du ko win élection tam fu nga am jaam ak ak ñëwut so loolu dara nekku si hmm. waaw ok léegi yow nga ne you on oppose Mama Kandeh's position went on on Euh, yenn position yi nga xam ne euh, ñu ngi leen jël gis nañ ne jigéen ngeen jël mu nekk di vice chair naaw ñeneen ñu ne da ngeen a toppandoor p ak ñeneen ñi parce que xam ne jigéen ñaa ko yor. waaw non top non loolu sax topp toppandoor UDP euh, dat Sadio Sadio Fata Bojang kooku nekkul jigéen góor la. Mhm. waaw moom du jigéen góor la. ok góor la ok. waaw la Sadio Fanta Bojang boobu góor la waa Birkama la. ok waaw. waaw du jigéen. léegi léegi yan yan jigéen ngeen am si biir am committee bi now do you guys have waaw we waaw we have lot of ñu ñoo ëpp jigéen ñi si executive committee bi si the entire country because bi di national national women president bi jigéen la député bi jigéen la ah, di national women mobiliser jigéen la andi di ah, bëri even di trésor bi jo di have lot of names xam ne jigéen bëri xam ne ñu ngi si si executive committee bu GDC bi hmm. te they handle a key position to the party hmm. ñu bari ñu ne GDC amuñ amuñ yaakaar si yéen parce que ñu jànga ci GDC bariwut affaire yi dina nekku xam xam ne am nañ ma xaama ñëpp ñu nge refletu Yaya Jammeh soo gisee ñu am ko jàngutoon moo tax mu teg ñu yu bari ñu teg di seem thing ak kii nii am Adama Barrow ne ñàkk njàngam mu sori ne ara fi mu nekk nii seen pati leader bi Mama Kandeh moom si boppam jàngam sori wut te ñu ko dar yëpp seen jànga sori wut soo it will be a waste of time pour sànnil leen carte yéen. waaw pa xam nga loolu ñu ko wax. ñu ko wax ñu nekkul di xalaat maama Kande moom mas dem na maama Kande su ma xëy moom jàng moom daf maa na ay gis nañ ko foofu so seconde am parti bi am nañ am nañ parti bi dafa jàngal because man dafa bilib ne loolu na am na dama university boot éducation ak knowledge bi benn mën nga am di éducation am knowledge bi surtout am ko tey ñu bëri tey ni ñu am fi ñu jëkkul daal ak ay décret yoo xam ne tey ñoom ñu waxaat réew mi soo xoolee ñaari commission bi ñu ko waxee yëpp nga xam ne ñoom ñu yaakaar ci réew bi soo mën gëm ma ne affaire yi because politique sa carrière la loolu dafa nekk lu nga xam ne beneen métier la mun nga am sa parce que décret mun nga am sa nit yi koy doo mën a politique doo mën a commissaire yi man maa ngi nii ah, aw ma masters wante ragal mu ko am masters because mun naa ko mi thousand people once ñu ñëw jël GDC am na tey seen masters yi mënuñ koo def pare jibi si ñu ba ñu añ ñu ko jàng dafa bëri ñu am am ay am na nga leen ay kilifa soo xoolee tey am na ay retard ay NGO sax mel ay Dakar World World Bank la doon liggéey ñu bëri ñu ngi jibi si right now fu mu nekk nii ay borom na ma tàkk yi bu ñu si parti bi boo xam ne ñu kay di gis ñu foog ne jàng fekk jàng ne xam nga tey ñu fi jàng tey su nekkee ne jàng rek mooy tax nga nekk président kon tey ñu bëri tey ñu fekkoon tey nekk nañ président so man góomal loolu dama góom euh, Gambien si ñoom ñooy xool ku leen doy ñu jox ko toogu bi And right now, somebody GDC as a party, two-years party, when party, when party have a Gambia, GDC is the biggest political party in the country, whether we like it or not. <laughs> so you keep the numbers of the party. Then they make them clear. Ah. What yardstick do you use the GDC where the biggest party in the country? So, question local one. Huh? During, the, during, the, during the election, we have 17% of the populations. Wow, 17. During the local, uh, during the national assembly election, we have the seventy percent and we have five councillors uh-huh. five MP five uh-huh. MPs uh-huh. bu ñu ñëwee su ñu ñëwee si local government parce que euh, increase from seventeen percent to twenty one percent with twenty five councillors and one chairman the entire Sierra Sierra North then kon political party mos na am lu history te soo xoolee coalition membership su ñu daal seen parti parti three percent mu nga amoon amul kenn koo xam ne mën na laa wan dina am seventy percent du population du du votes so kon GDC lu am yow am nga yaakaar ne comme twenty twenty one GDC ñooy Eh, ah, a Kandeh mooy nekk président ni Gambia. loolu moom loolu dégg nañ ko loolu moom soo nee sa nga récolté ko nga séb ko ba ba twenty non man twenty twenty one we ñun ñu ngi expect elections in next eleven months. dugal loolu la projet borom gaa metti ci loolu la ñu bi ma ne boobu bul ko laal ko jege la. man non man three years bu laay wax man three years nii man maa stock tuuti wax ma stock mooy eleven months nga moo des bu président borom sport boppi réew mi waa ca daa baro di def ay mbiram pour saxaw ak yéen in 2021 yow am nga yaakaar ne baro président président baro président baro su taxawee sax mënut a am tout parce que population ñu xamné né ne ko sa borom munut mu wu réew mi ana ko xam ay les fa borom pray na ñe tax boo fi réew mi amu dal na la ko woon su su né xene If you move your dog MC, let me hang up and call back so that the line can be clearer. Uh, ah, dig again MC's allegation. Mune President Baro Munta am even 2% of um, uh, vote to réew A Uh, lolu muy lo xamne lu am solo la. macha allah yan na laaj ni MC bi clé ñu dugalaat ko mu ne président Barrow munta am even two of votes ci biir réew mi loolu la wax ah, ki ñuy waxal nag mooy MC Cham Junior of GDC jamono ji ndawi GDC parti bi yëpp MC mooy seen boss moom la gaay jël mu nekk président yi njiiti ah, ndaw yi mu ne moom kat biñ ko jëlee dañ ko jëloon pour am on oppose manam dal taxawut ak ken ken xëccoowut ak mom ah, lenge yi nga xam ne mom la muy pour mu nekk am ah, njiti parti njiti ndaw yi kon ci PP ci GDC ah, mom la ñoo waxtanal ni dégg ngeen li nga ne la jotta wax mom MC Cham duñ def daral duñ ñu wat ko rek one more time laynam bi mu ngi doon break mu ngi doon dog mo taxoon way yéen a deglu di seetaan lu tax gambie du dem so jógee fi ci Gambian talent TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek ñu ngi leen ay di leen dalal bu baaxa baaxa baax fuñu way di deglu doo ci ñeneen te ko ñi àdduna penku xarpu ngopp walla ngalandu nambatu daal is 678 608 3322 678 608 3322 pour ñu nekk am um, Amérique ñu nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 ñu nekk Sweden 08559 26651 08559 26651 kon ñu ngi bëggee di leen dalal bu baax a baax mun ngeen ñoo call ci Skype bi um, uh, Skype name is uh, Plus one four zero four five nine three six two one five. name like hopefully will be able to MC this time around then I a yen the hopefully can pick up the phone so can I at home like uh, Warning is either switched off or outside the coverage area. macha allah Layeen <laughs> MC bi dafa mel ni mu ngi xaw a busy noonu rek comme niñ ko waxee woon ci gannaaw ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax ci loolu ah, yëfi Gambia la connexion bi nag ñeen jéggal ñu rek ñu ngi leen ñaax yéen ñi déglu di ñu seetaan pour ngeen jàppale ñu ndax seen jàppale dina am solo bu baax a baax a ah, su ngeen gisee call si ñoo def ni is very expensive. Your calling is either switched off or outside the coverage area. kon duñ def dara du ñu jokkuwaat MC Cham rek one more time pour wax ak moom ci jamono ji yéen ñi ñuy déglu dañu seetaan fu ci waay nekk ci ñeenti ko ñu àdduna penku xar pa ngopp wala ngalanu ñu ngi leen ñaax ngeen jàppale ñu ah, yéen ñi seetaan su ngeen seetee green button bi next to the comment section ah, foofu ci ah, page bi di ngeen gis of course that um, number you're calling outside the coverage macha allah ah, du ma def dara du ma jokku MC Cham Junior rek ah, jéem ko jokku fii nii si ah, WhatsApp bi ba xam ndax dinañ ko jot this time around hopefully he will be available. Euh, online pour wax ak ñun gannaaw line bele ne le mu ngi doon xaw a am euh, tuuti jafe-jafe képp ku ñuy déglu di ñu seetaan ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xar pa ngopp wala ngalando ñu ngi lay béggee di la dalal bu baax a baax a baax di la tatagal euh, line bi moo xaw a break foofu li ma doon wax rek mooy ne yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi leen a ñaax di leen ñaan pour ngeen jàppale ñu su ngeen seetee green button bi nekk next to the comment section foofu ci Facebook muy with the love sign Ah, di ngeen ñu mun a call foofu noonu di ngeen mun a contribute foofu noonu 5 dollars every month pour jàppale ñu pour ñu mun a jënd crédit bi nga xam ne moom la ñuy utilise di ngeen ñu mun a jàppale pour ñu. dépasse li nga xam ne moom la ñoo dépasse transportation internet bi jumtuwaay yu ñu war a jënd yëpp pour mun leen a indil euh, coverage yi nga xam ne moom ngeen soxla incha allah dinañ ko mun a am kon ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax di leen dalal di leen tatagal fii ci lu tax Gambia du dem show comme niñ leen ko waxee parti yi ñoo doon def seen congrès ci semaine bu passé nii jëkkoo nañ MC Cham dégg ngeen ñu wax ak moom muy GDC PPP dégg ngeen ñu wax ak ñoom euh, duñ def dara du ñu jokkuwaat euh, ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen parti yi NRP of course dinañ waxtaan ak ñoom su ko defee ñu seet dinañ leen jéem a jokk ñoom tamit to see if we will be able to get hold of um, uh, waa NRP incha allah uh, pour waxtaan ak ñoom rek to see um, whether they are available uh, pour ñu seet ñoom seen parti bi naka la fa demee. ak naka lañ am gisee li nga xam ne mooy seen congrès bi kon duñ def daral du ñu jokku gaay rek incha allah amin pour waxtaan ak ñoom képp ku ñuy déglu di ñu seetaan si jamono ji ñu ngi lay béggee ah, fo NRP dinañ jokku ki nga xam ne mooy seen party leader bi di Amat Bah hopefully we'll be able to get hold of him together with the other people suñ ko jotee loolu la incha allah ñu indi leen waxtaan wi rek yéen a ngi di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa leen ci gannaaw microphone bi di leen ko indil saa su nekk yéen ñuy déglu di seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi laay bëggee di la dalal bu baax a baax a baax di leen wax ne di show is life rek ah, su ngeen ñu jàppalee mu ngi mel ni yéen a ngi jàppale seen boppa ah, kon ah, ñi ñuy seetaan ci youtube bi ñu ngi leen ay béggee di leen dalal ñi ñuy seetaan ci facebook bi ñu ngi leen ay number you're calling is either switched off or outside the coverage area kooku ngeen dégg ñu ko daal ndeysaan mooy honorable Amad Bah Ah, moom tamit ne number bi ngeen a dial is outside of the coverage area ah, duñ def dara lu ñu jéem a jokku Alaaji Mbow to see whether we will be able to get hold of him um, and, like su fekkee ne jot nañ ko moom tamit ah, dinañu mun a wax naka la gisee ñoom seen um, um, congress bi naka la fa demee ak lan moo xewoon foofu noonu incha allah Ah, dinañ jokk honorable alaaji mbow nga xamne ci NRP la boka nek National Assembly member for opa Salum su ko defé mom tamit mu wax ñu rek ñom sen congress bi naka la su ko defé ñu dugga si wa doy then we will be able to play you some of those ah, videos wala ñu waxtane gaay message bi nga xamne mom la party leader ci pass ak sen congress bi naka la fa démé won kon ñu jokk ki nga xamne moy honorable alaaji mbow hopefully we'll be able to get hold of him ah, mom tamit rek pour ñu waxtane ak mom képp ko ñuy déglu ci ñenenti ko ñu àdduna penku gop wala ngalandu ñu ngi lay bëggé di la dalal bu baaxa baaxa baax ah di leen tatagal Ceesay lu tax Gambia du dem so Pa Ousmane Diouf fa leen nekkal ci gannaaw microphone bi bu leen wax dara ñu ngi jéggalu nak ci li nga xamné mo nekk di xew am ci dog-dog bi nga xamné ñu ko am ci jamono ji ni ñu ngi def suñ lay katan pour indi leen am. Uh, uh, uh, interviews. Mobile number you dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. It is not reachable, unfortunately. Ah, honorable Alhaji Mbow himself also is not reachable kon duñ def dara lu ñu contact ki nga xam ne mooy ah, Kek Sané Ah, moom of course is a good member of DOI moom tamit saa su nekk ngeen gis ko ci internet bi mu ngi binda ah, moom mi nga xam ne he is a party member of DOI a very important ah, member of DOI seen communication team bi saa su nekk ngeen dégg Kek Saane saa su nekk ngeen gis ko mu indil leen live coverage of li nga xam ne mooy xew ci National Assembly bi ak li xew biir DOI anything that happens for DOI Kek is always there trying to bring you these def dara lu ñu jokk Kek Saane si jamono jii Mhm. duñ def dara duñu ñu kek sané rek pour waxtaan ak mom ah, hopefully dinañ ko mëna jot hello yes good evening keks yeah evening bro <coughs> Pa Ousmane Diouf calling you live from Gambian Talents TV yeah Pa Ousmane ligé santa yalla yàlla ah, ñu ngi lay bëggee bu baaxa baax hope ko luñ laate bad time uh, no it's okay um weekend bu passé was uh, busy week for your party. yeah. <laughs> Uh, yéen a <laughs> <laughs> Sanjal uh, pour dem congress bi I just spoke to MC, MC Cham of GDC. I spoke to Aminata Kori of the PPP. Uh, yo, of course, I, I pick, uh, uh, want to talk to you about um, Sen Congress. Bi. Um, yeah. Why again Sanjal for a start? Young Yangi Life, by the way. Well, Ok, thank you very much. I'm going to uh, party bo hamnala party pour dekabila te doy congress pi is always rotational nekune station at one place. Mm-hmm. If you could remember our last congress we then got found Bansang. So mm-hmm. this time around it's not Bankstone. Uh, you decide uh, pour ñu def def ko fofu uh, tango uh, during the election bi tamit suñ councilor bi moy deciding councilor presently at Ngien Sanjal ward. So ñu decide pour hol suñ congress bi fofu uh, pour wone uh, uh, mu ngi dunda te mu ngi foofu. Uh, ok fair enough mm-hmm. so da ngeen doon bugg a make sure ne daal um, wane ngeen ne ok parti bi nekkul pour parti waa Kombo rek right. yeah yeah. ok. loolu mooy the whole idea is centralized and everybody has a stake on it so loolu moo tax dañ ko dee def protection wala if you could remember prior to that am nañ ko Basse am nañ ko Bansang so we are coming. Euh, te noonu la ñuy defee dañoo rotin dëkk bi yëpp ah bokk si doy. Oh, hmm. yeneen parti yëpp dañ def seen élection si ñu pare am. waaw euh, select seen njiit yi. Euh, GDC selected Mama Kandeh elected Mama Kandeh ak ñi nekkoon ci executive bi ñu bari xanaa ñoom Yusufa Jam ñu bàyyi. uh, PPP of course hmm. they are just coming back after twenty um twenty something years um the same thing PPP hmm. brought lawyer Dabo um uh, almost ah. yëpp NRP brought in Amad Ba yéen gis ngeen leadership bi uh, def ngeen congress Yen yéen electu leadership lan moo tax Wow, I'm going to do a uh, congress a party congress. suñ ko defee rek da nga dee am five years mandate boo xam ne loolu nga war uh, mm-hmm. uh, eh, a so soo 2015 do doy dafa def congress in Bansan. so so xoolee two thousand and five be nga aga tey 2018. Eh, sorry and I find out the ba executive bi they didn't serve their five years mandate The five years mandate lañ am pour ñu war a so that shows you ne they have étaam boo at boo xam ne na congrès so they it's not an elective congress but congress boo xam la dañ evaluate suñ success ak any if there is any failure you move on and we will come with a resolution boo 2019 they will have a elective congress boo we will select a secretary general any other position boo somebody feel like ne da nga ko vie and you are a member you are welcome pour nga wone sa interest and definitely we'll go in for a democratic election and we might select anybody. So that's 2019. But for this Congress was just more of an evaluation Congress because since till now our people didn't finish their four years mandate. They still have amnan time bo hamne not send mandate because 2015 be four years lower and so three years like in insaf so lo we didn't do any congress uh, is elective congress but we do a validation congress Bohamne then you evaluate the party success ak den nit yi yëpp dañoo ñëw with resolution so resolution yooyu lañ boole Dan 2019 ñu def ko suñu resolution has 2019 election the foofu la eh mm, congress the foofu la ñooy taana uh, koo xam ne daal bëgg nga pour nga nekk uh, njiiti doy then you can come in uh, waaye ñeneen ñi ñu ne da ngeen is always tactical du ngeen dee ros pour def lu bari or na leen ne jamono ji dëkk waa ngi jaxasoo cross carpeting ak yu bari ñu ngay xew Ah, bugg leen a jël ay nit mm. def leen jiit ñu mujjee comme ni ñoom Youssoufa Thiam def génn am ah, ñoom kii nii génn am ah, fii nii Youssoufa te kon génn GDC ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngee cross carpet I mean from one party to the other bugg leen jël ay nit def boole leen seen executive bi ñoo ñu ñëw génn what is your reaction to that ne ok da ngeen a try to be tactical tactical here rek. non loolu du doy sa maana sa because doy dañ gom ne ne Gambien boo xam ne dem nga ba jóg da nga am eighteen years rek yow yaa moom sa bopp yaa moom a xel yoo yaa moom everything loo xam ne and décision bu nga jël rek hmm. ah, da fa war a nekk décision boo xam ne yow toog nga ko xoolaat nga ko loolu moo tax doy doo mus a gis ñun suñuy rally sax ñu wax nit ne sànni ñu karra duñ ko def because suñoo defee loolu that means we are questioning your intelligence is not intelligent enough to determine kan moo war a maa jiitu man kan laa war a jox suma the party has to impose on you ne pour nga ko so ñun we don't believe in that and it's not about tactical wala leneen na ñun kuñ fa teg rek if you feel like you are not comfortable with the party or you feel otherwise hmm. ah, the door is open so loolu moom uh, nekkut loo xam ne sax xalaat nañ ko sax te ñëwut even in the ideas of toy because government eh, every person is a conscious person and is a conscious citizen who can make an informed decision boo xam ne kenn so it's not about ne boromam bi dina ñëw mu dem ñun duñ ko dee xalaat noonu because dañ gom ne Gambian bu nekk da nga am help ah de xam nga ne sa xel bi ko wara def ak sa kan nga mun support because you are somebody who is a sovereign citizen so ñun sovereignty bi dañ ko dee respect up to an extent that we don't impose anything on anybody it's just that it's not an elective Congress because that day guy am another mandate boo xam the one year des na and we didn't go in for any elective Congress then them pour that was clear to all our members and they all agree on that yeah, they have to serve the rest of their term but since IEC more require all political parties to go in for a Congress then we do it as a validation Congress that's all du ngeen sampa sampal ay ndenda teg ay sabar yeeg lii this time seen seen congress bi safoon na sàppa de non am nga gars yi doy def de play sabar sabar yi ñëw nañ ah gars woy def ay affaire ah <laughs> waaw xam nga fu ñu demee dëkk boobu dëkk cosaan la soo leen xaale Madina Sabar foofu lañ jógee boori yooyu ah, ah ba doy def dee play sabar def boobu ba ñun suñ sabar bi def dee àndaa message boo xam ne dañoo jàngal nit yi suñu woy yëpp soo ko déglu def xam ne mm. lii nekkut woy kese la boo am na wax bu fa nekk te nit mën nga koo for nga def ko téere nga takk sa ndiga bi always we educate people si suñu way la suñu so it is more different of nga tega rek and everybody just dance but we are sending message through music because music should be an instrument of message so dañ tega but it's not like Niti Lunde luñ so that's why people feel like ne doy was not doing it but so demee si palace jambur and they feel like ne they wanna Ah, def seen culture bi moom we have nothing to do lu ñooy wax ne ñu bàyyi la ñu sabar rek but su fekkee ne suñu sagoo la dañooy ànd ak suñ yoo xam ne dañooy éduquer nit yi but soo dégul si woy bi sax da ngay xam ne ñu nekkul woy kese la ñooy def rek but ñu ngey jàngale nit yi because soo dégul si beneen woy ñu ne leen bàyyi leen wiiri wiiri Mm. Yeah, ngi understand loolu yëpp mu ngi laa wan caaxaan bi dafa bari mm. na nit yi bàyyi wéri wéri am nga soo demee soose bi tamit mu ngi laa wan ne te lettaamu bankooti nte lem bankoodiŋol di na kaŋole nga understand the key message la mooy joxee you are the sovereign citizen of this country so though is always like that everything that we do has to be educative mm-hmm. yeah masha Allah yeah okay congrès bi jeex na gi waaye yan résolution ngeen adop fofu wala lan la doy taxawal APRC def nañ ñu pare ñom ñu joxe demand tan ya jame joxe demand wax liñ bëgg pour am um, before the next election what did doy come up with si sen congrès bi wa wa suñ congrès bi mo nekk ne wax nañ Gambien yi ne pour ñu xam ah, ñom ñoom dëkk bi mm. te e, fu mu nekk ni ah, luñ amé mo nekk e, régime change lañ achieve fu mu nekk ni that was the idea of the coalition bi mm-hmm. we must effect change, that is the regime change, because uh, since independence, almost 54 years, Tekabi Musuta changed through a ballot box. Mm. musuloo dem nga sànni is ida by a coup d'état wala leneen boo nit yi dem nañ ba option extended dañ foog ne sax seen carte bi mënut a change nguur mm-hmm. bo 2016 loolu achieve nañ ko ah, te loolu make sure nañ ko ah, ñu educate people pour ñu xam the value of their voters card comme que loolu am na léegi mm-hmm. Gambia mu si loxo Gambian yi mm-hmm. ah lu mu xew léegi kenn du war sa blame Gambian wala président wala leneen because yow yaa dee taana yow yaa dee dem sànni sa carte nga def fa nañ seen cadre bi moo seen doole te mun nañoo fal mun nañoo fulli nguur so soo demee ba xam loolu léegi kan nga ko war a ñun yëpp war nañ koo xam jàngal nañ xale yi loolu jàngal nañ ne tamit ne dëkk bi mu ngi si transition bi transition bi ñu ngi bil constitution bi bon même façon constitution lañ bugg a am ah bokk na suñu bi comme soo demee si death penalty bi nit ñu ngi wax ne Gambia ah penalty bi dafa war soo rayee ni dañ man dry na yaa ngi understand te luwa bi constitution so fa demee mu ngi laa wane ne ah bakken kenn waru koo faatu hmm. so man rey naa nga tiye ma nga ne danga may rey léegi nañ xalaat kan moo koy rey hmm. ndax dafa jël paaka rek mu génnee xuur bi eh, mu doga baatam bi wala dafa jël fetel mu def ndax doomi aadama mun na jël morom doomi aadama jël paaka wala jël fetel fetel ko ndax kooku doomi aadama la so ñun ñu ne suñ taxawaay bi doy su fekkee nit dafa rey nit dañ ko war a tëj ba atam bi fu moom fu mooy dem uyu yàlla te lu mooy liggéey ñu ñu meeg soo daal ñu jox ko famille boobu koo xam ne ñàkkal nañ seen bakkan bi mu liggéey liggéeyal nguur gi te lu mu liggéey rek ñu yóbbu ko famille bi su fekkee am na dara bala ñu koy yóbbu kaso ñu jël loolu jox ko famille ba ñun loolu mooy suñu taxawaay te résolution la boo xam ne dinañ ko yóbbu si constitution réseau bi te dem foofu affaire citizen tamit ñu wax ne dëkk bi mu ngi jaxase ah mu kenn xam mënut a xam kan mooy citizen ak kan moo nekk citizen am na ñoo xam ne ñëw nañ Gambia fii almost balaa independent ñu ngi am doom yi fii ba ñu dem uti ID card ñu ne leen ne yow nekkuloo Gambian bi te loi bi mu ngi laa wane soo stay si Gambia bi one seven years war nga ah, naturalize nga nekk citizen beneen constitution bi mooy nineteen ninety seven mu ne fifteen years mhm. but kenn jàngalut nit yi naka ngaay ban yoon ngaay jël pour nga nekk citizen fii te ñu leen di leen di use ñu pour ñoom ñu toog ñu nekk président boo kenn jàngalu ne naka ngay defee pour nga am kayit boo kooku mun nga koo jóg boo des kaat mu sànni ak leneen soo ñu ne léegi dañu war a def loo xam ne ne ah ñoo xam ne dañu war a naturalize toog nañ fi fifteen years nañ leen jox kayit bi ñu naturalize suñu feel like ñoo xam ne citizenship by marriage la dañ sëy te loi bi mu ngi laa wax ne soo seven years da nga mun a apply for citizenship by marriage loolu tamit dañ leen war a jox kayit bi ñu nekk citizen hmm. dañu am a total registration boo xam ne dafay nekk si data system bi boo xam ne ku ñëwaatee es do balaa ngay dugga ñoo xam ne ne kii ñëw na ak naka la mooy nekkee citizen su fekkee jar na pour mu nekk citizen data bi yëpp dina am boot kenn du mun a require suñ document fraudulently boo léegi xale yi ñoo xam ne sa papa ñëw na fii hundred years ninety almost uh, fifty years sixty years mu am doom yi fii doom yi juddoo fii dem school fii xamuñ benn dëkk Gambia te mu mu dem uti kayit nga ne ko ne ah, sa papa dafa ñëw nekkut Gambian bi doo mun a am kayit kooku falla mo edem dem kooku Gambia rek la xam so ñu ne ñun suñ taxawaay bi doy moo nekk ne ñoo xam ne war nañoo am kayit since eh, eh, sixty five constitution la wala nineteen seven nineteen seven constitution ñëpp dañ leen war a jox citizenship bi ñu amee ñu registration boo xam ne dañoo am alkal bu nekk dafay am secretary boo xam ne dafay toog ku rek ñu register ko ñu jox ko alkalo eh, birth certificate foofu that people will be linked with the social welfare bi boo xam ne dañu lay provided voter ay birth certificate because Gambia fi yaa ngi toog alkal Gambia sa mënul laa produce la birth certificate dangay dem nga dem alkalu attestation alkal alkal bi moo lay jox waaw mm-hmm. alkal bi moo lay jox attestation pour mu confirm ne xam nga yow so you cannot even produce at your birthplace pour nga mun a amee certificate so the system itself is so so you cannot blame the failure of the state nga bugg punish the citizens of the country that was the failure of the state to educate the people how to require citizenship so loolu do mun a punish the party so when it comes to leadership bi Ah, naka ngeen ko defee seen constitution ndax review ngeen constitution bi am yu ngeen fa segg génne waat ko ndax am na ñen ñoo xam ne amin wax ngeen si affaire term limit comme ñaata at la nit mun a toog as the amin secretary general of the party and the like No, actually, uh, constitution because feel like that the constitution uh, doesn't. Uh, uh it's not like a section or like doesn't buy anybody putting uh, your willingness to the leadership. So the constitution is very clearly stated. Uh, it respects all the fundamental human right of any citizen. It delegated the right of any member. So they feel like that there was no amendment there, and. Uh, in terms of membership, eh, uh, I'm not as a because our membership was divided into 3 mm-hmm. categories. You can be a member, you can be a sympathizer, you can be a supporter. But for now, there is a verse on the Alohamna now. Uh, it's open um, anybody who feel like you can. But apart from that, there's nothing like uh, leadership or uh, anything has changed in the uh, party. Uh, leadership, eh, Gambia party, yep, the same people. PPP uh, ñëwaat nañ am uh, of course ñoom am nañu new leadership uh, with Papa Ndiaye but UDP Dabo lañ jëlaat NRP Amat Ba lañ jëlaat ñëleti so are we anticipating new faces with Doy is Kex gonna be the next flag bearer and Secretary General is Khalifa and Sidia and Samsar are they going to retire ñu jébal leen lenge yéen xale yi ñoom Ousmane Silla ñoom Ansoumana Diba ak ñeneen ñi nga xam ñu fa di dynamic people of Doy am um, oh. Sidia ak um, Samsar continuer rek ak la continuer pour amele ngay what are we expecting? No, they, uh, no, they actually, Hamganidi, they have to feel, they didn't fail to understand the system of amon fee. Ken kenn ñuy wax kenn musut a xalaat ne sax da ngaa ñëw nga dugal sa gémmiñ si politique because by then that was a liberation movement it was not about a political party there was no young Gambian koo xam ne pare na pour nga dugal sa boppa bi si jamono boobu buñ nekkoon eh, buñ passé yaa ngi nag waaw Halifa musu waaw Halifa musuta Halifa musuta wax waaw ñoom mus next election dañu wax waxuñ li passé next election You know. waaw loolu whoever feel like ne am nga you don't leadership is not imposed uh-huh. do they impose leadership to somebody you must uh-huh. demand it and it will be given mm-hmm. Kupare. pare te you believe na ne yow ñii lu ñooy def mun nga koo def wala lu ko raw come and listen show yourself ne I'm ready to do this but ask anybody who is saying that whoever mag yi romba Halifa wax na ne moom gëm Halifa si wax na ne moom lim gom loolu la Sidia gom loolu la Sam Sarr gom and every other member of Doi and you guys always speak one thing that we can give Doi is you speak the same language every time the same everybody in Doi speak su ma kooloon Ousmane si la léegi li ma wax la maa wax su ma koloon Ansumana Dikko eh. li ma wax la maa wax the same language ñoom Halifa eh. ak ñeneen ñi yëpp which is a very good thing eh. consistency and communication flow ngeen nekk ci same page bi di wax benn kàddu gi yéen ñëpp waaye ndax Halifa Sidia ak am Ami Silla ak am kini are they ready pour jox leen yéen xale yi ngay pour ngeen take over ak Samsar. loolu la wax ci congress bi loolu la wax ci congress bi and it was clear they said this con this uh, congress is there is the congress of young people and they have done what they should done now it's the time for the young people to come and take the ownership of the party this was what they said in the congress so it's left Wow. next election so now let them come in whoever comes and we feel like you can do it we will definitely vote for you you go but we cannot uh, abandon we cannot abandon the elders to new ones, and they are not there because man I don't believe in like Magla la Halela. because sama Jaya Jammeh was 29 years when he was taking of this country what have he done for us Jawara was a young person OJ was a young person what what have they done so it's not about the age it's about who will deliver laaj he have been there for 50 something years. Lawyer Dabo, the same yeah. argument is saying he's been at UDP for 20 something years. Nyum Halifa tamit have been at doy juróom fukki at ak ñetta ak tegal ñu ngi foofu leadership it's about time Guy jébal lenge Halé. xale OJ def uh, so are we going to see new faces in doy say next Congress. That was that's, that's the Kradilian call. That's the call. They said the young people let them come and take. See them when they get a borrow a moro man be there they a man madam. Likewise Salifa Tamilolawa. So one and Lulu. So now they have put the challenge on the young people. But now the question are the young people ready to take the ownership? Uh, no, young people, yeah, me, me, I'm but right now. I, I, you know, me, I'm going to school and I want to further my education. So, man, I'm not this year, not next two years to come. I'm not planning for any executive position in Doye. I'm going to school. So, and I must, I, ñom huh? Ousmane Silla ñung fa they are younger of course um, Diba other young people who are even much younger than that. They, are they ready? They have been taking position. Asuman, Asuman Osila is a member of the. Uh, he's, he's holding a position. Usman Silla is our National Assembly, sitting National Assembly member for Banjul North. Yes. And he is also part of uh, the, uh, uh the Central Committee. So there's nothing like they are left behind. They are part of it. Khalifa Axi, they are basically the chairmanship and the secretary general. Are they going to give no. up? When you, when you said, there's, uh, there's no leadership in DOE. It's a collective leadership. There's no single person who decide on DOE. Uh-huh. It's a collective leadership in DOE. Usman Silla is part of that collective leadership because DOE is a central. So why So why a central committee? It consists of anybody who is part of. And that those people, you know, they are the they are the people who make decisions. It's not about Halifa. If they Halifa Bugadara, mm. he'll come to the central committee. Muwahlana, this is my proposal, and they will discuss and come to final conclusion. It doesn't mean that if Halifa says this, this is what's gonna happen. xel si Sidia Jatta laa dem xel si Halifa Sallah laa dem xel si Sam Sarr laa dem xel si Ami Silla laa dem these names these faces suñ ne UDP xel si Lawyer Darboe laa dem xel si ñoom uh, Yam Seck laa dem ak ñooñu xel si ñoom <coughs> Amadou Sané la dem suñ ne PPP doon dem si ñoom ak ñooñ suñ ne GDC xel si Mama la dem these parties are ah. surrounded by these people people put faces to these parties suñ ne doy rek straight ñoom Khalifa nga expect suñ ne GDC straight Mama Kandeh nga expect suñ ne NRP straight Amat Bah nga expect are they are we going to see new faces comme ni PPP inde Papa Ndiaye that's what we are that's what the argument is here are we PPP, uh, I, oh, I, I saw that PPC bring Papanjai or Papanjai offer. And I told you that leadership is not imposed on people. You must show your willingness that I want to take this task. so I so we are ready to take the ownership of the party. We are ready. Uh -huh loolu we are ready to take the ownership of it because these people have do their attacks and ñun ñoo koy amplify ñu aagaloo ko foo xam ne ñoom mënuñ koo aaga but since they have shown us the way ne lila and we have seen the way definitely we will take the baton from them and we are ready to push the party's agenda loolu is fixed. jërëjëf Kex your last message to our ah. viewers and listeners. Well, thank you very much. It is very productive. Ali moom baax na torop ah, suñuy waxtaanee affaire dëgg rek ah, incha allah dinañ am yoon te ah, ku nekk rek lii waxtaan bi dafa baax man lii laa dee bëgg nañ waxtaan. We debate on issues yoo xam ne nit then citizens will take what they feel like best convince them. So I appreciate your program and I'm very grateful and wish you all the best in your endeavors. jërëjëf Kek Sané. thank you of thank Doi. Ah, kooku mooy ki nga xam ne dooy la nekka ah, comme niñ leen ko waxee rek li xew ci réew mi lañ leen a indil ah, jéem lañ leen a jokkul PPP ñeneenti parti yi nga xam ne def nañ congrès si weekend bu passé nii waxtaan nañoo Aminata Kory mi nga xam ne PPP la nekka ñu waxtaan ak moom mu wax ñu kat lim xam ak li xew foofu ci seen congrès bi waxtaan nañoo kii di MC Cham mu ngi ñu doon wax MC Cham nag yàlla def na fi dog mu ne président Barrow tout percent sax du ko am moom lañ doon waxtaanal noonu balaa ñoo indi keek saane yëf yi noonu duñ def dara du ñu jéem a jokkuwaat MC Thiam rek ndax lim doon wax am na solo bu baax a baax a baax hopefully we'll bi able to get hold of him ah, ñu waxtaan ak moom su ko defee ñu am tënk ak moom waaye indil nañ leen ki nga xam ne mooy naka lañ ko ooyee Kek Saane pour waxtaan ak moom jokku nañ waa NRP mënuñ leen a jot ñoom tamit ah, kon loolu mooy li nga xam ne am nañ ko ah, ñoom ñooy dégg nañ li nga xam ne moom lañ wax si ñoom dinañ leen indil bi mhm. jërëjëf Paos. waaw MC. naa Ousmane na yërëjëf waay. MC baalal ma yëf yi dafa dogoon MC. dafa dogoon waaw ay <laughs> no lu am solo nga doon wax yëf yi dog ngeen ne du am tout percent sax MC. <laughs> waaw doo mun koo am so gars yi gars dañ koo nax rek ñu ko wër di xam nga dafa am lu lu daw yaram si réew mi fu mu nekk nii. waaw because man gëwuma ay dem di lay foundation jar nga jël ay nga xam ne loolu even uh, di di chairman of the area council mun na koo def au permanent secretary mm-hmm. wala di vice président wala nga buub every everybody yóbbu ko on board pour lan pour lay foundation pour liggéey ay tali foofu naa Gambie dem ba passé boobu right now fu mu nekk nii nit ñaa ngi sonn fu mu nekk nii uh-huh. lu gën a am solo ñu wàññi dunda bi tey da ngaa gis ne tey ko antum resa problème mu nekk hmm. so affaire easy wood so and i think that for example man dama ko advice moy mu make sure ni 11 uh, month mo dess mu organize elections di def elections wa kenen ko ko advice ko lolu mu ko na wa so yow ci dega dega gom nga in your head ne baro dina joxele ngay in in 11 months time waaw loolu moo loolu moo war am loolu mo wara am su mo su ko defut ñu wo su deful ñu won gaamen ne moom nekk na am nga kilifa sa kaddu nga am waaw su dee ma ñaaga sa kaddu rek boobu jeex na. te moom mu ne dafa am lu mu commencé te loolu jeexut ñetti at la waxoon. lan déedéet waaw déedéet waaw déedéet xam nga moo xam nga xam nga man moo man ma ne. Euh, par exemple su ma xamoon euh, ban ban ban café laa ko jox mu naan mu eew mu xam ne mu xam mu eew bu ko fu mu nekk nii mu ngeen nelaw. because moom dafa am lu ko taxawloo lu tax mu ñu ñu élect ko mooy réforme change luwaay change condition si ko pour mu liggéey ay tali wala pour mu liggéey ay yoon anasaan nga right now moom dafa war a xam ne gàmmeen si dañ ko dénk pour ñetti at su ko bëggee romba dinañ xam ne ne kii jiir bu nga xam ne woo waxee gambien si dénkuñ ko pour ñetti at di gambien si juróomi at lañ ko dénkadi déedéet déedéet déedéet bu ah, mu dem bu mu dem AIC manifeste bu ay bu mu yóbbu AIC mooy treize manifeste la yóbbu AIC Mama Kandeh moo yóbbu five years Yaya Jammeh yóbbu five years Mama Kandeh dafa campagne five years Yaya Jammeh campagne five years Adama Barrow Banjul boobu koy na dafa ne ñetti at la wax three years three years la wax Gambien kon kooku hmm? waaw loolu la wax Gambien si ne three years three years kon loolu la campagne loo campagne doo may def sa manifeste loolu loo kam dañu wéré yi condition on yéen yi condition bi bu ñu ba amul benn yow gis nga baro ndiiraanam bi yow baro mu ngi ñëw de yow ngeen gis nga baro amul amul benn ndiiraan gis nga di forcé alkaale yi di forcé ci bi ñëw sa machine bàyyi foofu loolu nekkul ndiiraan onosaan nga ah. waaw jël alkaale ni ñëwal bàyyi foofu ñëw ci ay technique loolu mu forcé nit la to ma eh, semeran def noonu loolu la baro def nii indi gaay baro la def indi gaay alkaale yi forcé ci mais ñëw leen ñëw leen dama lii fànn loolu ñëpp nañ ko président Barrow mënut a am tout parce que population bi dañ koo support. <laughs> di bettu de MC. ñu ngi ko mobiliser. man man Barki Demba Barki Demba Barki Demba Ndiaye laa jógee amul team ñooñu nekkul team ñooñu amul ñooñu amul ñooñu amul influence xam nga politicien war influence. Ah, ah. ñu ko wër yow influence ñu ko wër amul influence ñu mënu wax gaamee ñoom dañ koo dégg ah, ñëpp xam nañ li xew ko. ñoom Duusaano ah ñoom ñoom ñooñu ñëpp non ñëw ñëpp amul influence nii ñooñu ñëpp amul influence I know them very well ñun Doudou Sané xam naa leen mën naa gaa yi di ko juus wang Doudou Sané di ko juus wang amul influence right now Doudou ah. ñoom ñëpp ku laawoon Doudou Sané Sidi Ndiaye ñoom ñëpp ñoom faamaale ñu fa nekk ñëpp te mun laa isil kenn nit ñu ñu bokka ñu booy bokka si borom mouvement dañ koo nax rek amul technical know how yoo xam ne ñëw ñu mën a yóbbu nga politique dafa am ñoom la grassroots campagne dafa am ñoom ñoo ko defaral te par exemple man bakki dama laa jógee Basse gis naa lu fa nekk gis naa doomi arab yor ko moom ak Kande understand nga gis naa lu fa nekk xam naa lu fa nekk soo dañ koo rek mais ànd ne moom bi ko xaalis baa ko ñu nekk xaalisam génn li gën a am solo mooy ku ko advice mu amee very good name liggéey si after life sa président dafa ne eleven months mu o oo oo for elections mu withdraw mu dem toog soxla business am moo gën waaw sa taw after eleven months ñëpp ñëpp xam ne yéen yan step what would be EDC step non li ñu jël mooy ne war gaamen ne kii nit ko xam ne dafa ñëw pour nax gaamen kii di saama kaadoom kon kii kii war laa yatee réew waruñ ko jox bëgg dafa miskil gaamen si daf leen nax boobu bëgg nekk président année bii mu bëgg a toog foofu su leen ooyee nag pour ngeen dem ak moom coalition nag non non loolu boobu eggaagun eggaagun foofu président Barrow nun eggaagun foofu président Barrow suñu dem ko xanaa suñu la mu nekk because ñun ñoo ko ñoo ko overvote ñoo ko overpresented. <laughs> so yéen daal stance si Mama Kandeh before ne yéen yéen a war a jiitu xam nga coalition bu njëkk. non de loolu ngeen oote woon. ne yéen ngeen jiitu déedéet déedéet non non non non non non non de waxuñ ñu war a jiite dañ ne. Hmm. d' accord délégué si ñu vote dañ d' accord open primary. open primary. open primary leen d' accord pour Gambia si ñu vote. Hmm. dem na ba si last minute yi last minute yi Mama Kandeh nangu woon na pour ñu dem dëkki dëkki Baro. pour Baro dëkka. pour Baro dëkka. Mhm. Kubaro Dika. Mhm. waaw Kubaro Dika ñu dem fa ñu teg box si ba Pesan Baro ak box si Momad Kande ku win valide coalition bi. Mhm. Kande accès woon na loolu. lu lu wax mooy open primary di leen wax waaye mosuñu wax su ngeen waree dem ak moom euh, coalition léegi da ngeen a lead ñoom ñu follow. Baro su ngeen da ngeen a lead Baro follow. mbaara ñoo ko moom ñun ñoo ko ñoo ko ëpp pourcentage ñoo ko ëpp nit ñoo ko ëpp ñu xam ne ñun ci biir suñ ko bëree den pare mu ngi amee incumbency ah. uh, advantage dan la man incumbent da Lusa Sokone incumbent incumbent la am moom it incumbent mbaara daa mel ne bëgguñ ko kii soo soo gisee pénc mi di taxaw fay mi di taxaw sax beneen ni si su suuru baro gaa mel si bëgguñ baro No, I'm telling you, Moro is the most unpopular president. So your Lengay mom, or like, are you saying the Lengay next election, Baro mom bokod? non Baro bokku si liste bi sax. whether twenty twenty uh, twenty nineteen la ou twenty. non man bokku si bokku si liste bi sax gis nga bu dee si Baro bi gis nga diggante UDP ak GDC ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy demalante sax ak ANCAR wala pour mbaa si Baro yi nii ñooñu bokku si sax. I'm telling you bro. Baro mooy président bi jamono jii de Baro. oto yi la nekk am na xaalis bi ah. ah léegi kon si amee yaakaar si ëllëg bu fa am. Hmm. nañ ne on dirait yéen nañ ne on na si élection naka naka jën waaye. léegi am na indi si nekkee am na in incumbent am na doole bi na oote élection nu mu gën a gaawee xam nga sànni waaw ah Baro Baro mënut a bokk Baro bokk si line bi sax. so is yan three parties yan parti nga wax ne ñooñu la. parti yi mooy GDC eh, UDP a foofu la foofu la mbir bi nekk. soo si ñett yooyu yow foog nga ne. waaw kan moo gën a sànni chance doo. ji ah GDC moo gën a taxaw chance GDC mooy parti moom ñun ñun yow gis nga gis nga ko parce que ni ma daan liggéey congrès gis nga we have the best congrès we organize in GDC. gis nga doomi aadama yi du léegi are you guys open hmm? to any um, coalition if any of the parties want to. waaw xam nga xam nga xam nga boobu automatiquement léegi suñu demee force ra ñëpp dem su année bi dee seconde ra bi su ñëwee ana saan nga ko xamee ne moo lii ñu ne ñu jàppale ne ko demaa moom rek. so yow loolu rek time boobu rek ngeen dem coalition but not right now ne ok comme ngeen toogoon baro ñëw na ngeen coalition ak moom wala APRC wala ñeneen. ah yéen loolu ngeen bokk ci coalition am nga am nga waaw wi kan loolu lu ma gis léegi fu mu nekk ni ku nekk da nga sa boppa nga ut ut ko. parce que xam naa ne suñu demee ñun ñooy nekk foofu suñu kon si kaw si dooree jiri si mooy nekk foofu si kaw. Mm, mm, mm. waaw oh, ah, waaw waaw waaw maa ngi laaj biram di la sant bu baax a baax di wan ne rek ne ah, gaameen si ni ngi kon lu ma wax mooy président Barrow lu ma ko advice mooy dafa digg gaameen si ñetti at ñetti at baa ngay waaj fi mu nekk nii mm-hmm. mu organise elections gaameen si tànn seen njiit ku mën a yóbbu réew mi mm-hmm. tey les foundations yi mu def nii yëpp loolu nekkul nekkul lu bees ci Gambia gis nañ ko dafa sona sona foog naa yooyu yëpp daf si war a passé pour gis ne dimbale Gambien si nit yaa ngi sona fu mu nekk nii loo gis Gambien mu ngi yokku so loolu war naa mën a gis ne loolu mu saafara loolu moo gën ray naa mënu koo def mu mu abalee ba tey baro benn benn activité su ko defee rek naa mooy ñetti aljot mu wàcca ñëpp gërëm ko sant ko loolu moo loolu la mën a def mu xam ne ah Gambien si ne ko ne waa defe na liggéey na fi dara hmm. macha allah waaw ji jidi si daal ci kaw sa kanam léegi yéen a ko amee non boobu moom boobu leer na fu mu nekk nii we are the <laughs> we are the well well organized political party diverse political party suñ parti bi am na joola am na soose am na everything there is a committee even disabled am nañ committee in GDC disabled bi am nañ committee yoo xam ne ñoom ñoo ñoo ko am seen own committee ñoo fa nekk parti bi fu nekk loo xalaat rek mu fa is a very diverse parti ku nekk yaa ngi gis sa bopp thank you very much <laughs> jërëjëf ku koy MC Cham junior of the GDC dégg ngeen ko ni ma leen ko waxee rek ah, ah, Gambian politics is getting very interesting te li nekk di xewlu la ñoo waxtaanee ah, kon Kek Sané moom mi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee foofu dégg ngeen ñu tooñ ko ne ji naka dooy ren kat dañ amoon musique si seen congrès bi te ñu bari dañ leen daan tooñ ne dooy duñ dee am mama Samo waaw waaw mama Samo لنا لنا هيدا نزول خليفة سعيد كلا ياي ماما سيني بصير سامي ياي جاجة بتنعني فرمويلة كلا أولا لنا كلا bi nga xam ne génn nañ fa macha allah ah, dégg ngeen ko partly loolu mooy li xewoon foofu noonu ah, waa doy nag sampoon nañ seen i ndënda ah, gannaaw bi nga xamee ne taxawaat nañ dem def seen élection si jamono jooju ñu passé si week bi ñu génn comme niñ leen koy waxee saa su nekk rek di leen ko indil Gambian Talents TV ngeen nekk di déglu Pa Ousmane nekka leen ci gannaaw microphone bi di leen bëggee fu ñu waaye di dégloo di ñu seetaan ci ñeneen ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu Ah, gis ngeen li nga xam ne moom lañ génnee foofu noonu gars yi seen coow li ah, am na solo dégg ngeen tamit résolution si nga xam ne génnee nañ ko foofu ci li nga xam ne moom la ñu keek saane wax ne moom lañ def foofu wax naa leen ne ku mel ni Halifa Sallah gaaral na kàddu foofu noonu ah, wax li nga xam ne moom lañ mooy history dooy ak niñ taxawee ku mel ni am Sidia Jatta wax na foofu ak ñeneen ñoo xam ne de à part of dooy waxtaanoon nañ ñu ak yéen foofu noonu keroog ca bés ba ci parti dooy bi Ah, duñ def dara ñu indi leen some of those messages yi nga xam ne moom la doon pass rek. constitute the basis of your revenue and non-tax is just one billion. And when you talk about the Singapores, the Koreas, the Chinas, the reason why they could move further is that they don't rely entirely on taxation. Their states are productive. They invest in the productive base of the economy. But now your economists are saying that the state should not invest in the productive base of the economy. They should simply get others to come and invest. That is why in Katom, Bakukungu, and Sanyang, instead of the state building up the capacity to mine those resources or build up a partnership where it will have greater investment, greater share. No, they are getting a company that they call Gambia Angola China Company to come and invest in Katom Patokunku and Sanyang to mine your mineral. kon gis ngeen deg ngeen lim wax ah, ni ko doy waxe rek li wax kek saane Ah, li fa wax moom la Sidiya wax ah, moom la ñeneen ñi wax kon gis ngeen ne doy ah, ñoom seen message bi pour jàngal askan wi la pour xamal askan wi li nga xam ne moo nekk di xew ah, pour xamal askan wi li nga xam ne moom moo nekk di go on pour ngeen xam ci dëkk bi ni moo doxee ah, ñoom ci loolu lañ focus woon pour waxtaan ak askan bi ci seen congrès bi ñoom ah, loolu lañ waxtaanee woon kon ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax a baax yen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu ci jamono ji di ñu bégee fu ci waaye nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu dinañ leen indeel tuuti ci kër am ci naka lañ ko ooyee PPP seen programme bi nga xam ne xewoon na foofu noonu ak li nga xam ne moom la gaay discours ah, ñoom ci seen élection si ñoom waa PPP seen congrès bi ni mu fa demee woon keroog ah, ci jamono jooju noonu ah, mooy li nga xam ne lu am solo la bi nga xamee ne ñoom def nañ seen programme ñoom waa PPP kon ñu indi leen loolu rek PPP seen congrès bi gannaaw bi nga xamee ne ñoom am nañ waxtaan Bibi Dabo ak Papa doon xëccoo foofu noonu pour seen pati bi naka laa demee seen congrès bi naka la moo demee am ah, ci jamono joju nonu gannaaw bi nga xamé né gaay def nañ ko félé ca am ah, ah, Serekunda seen boss Gambia lañ ko défé nak demuñ out of town pour défé ko fofu dé dé dé seen Gambia the video is courtesy of Kër Fatou kon ñuy bëggee gars yi bu baax a baax a baax gis ngeen ne moom it amoon na représentation people ñoo xam ne

xolle li fen yi la bokka ci parti bi la bokka macha allah gars yi gis ngeen waa PPP ak seen asubi they were all set and ready to go ñoom tamit macha allah ah, gis ngeen li nga xam ne moo xew foofu noonu ah, gis ngeen every mbay moo nekk noonu I mean at the party's congress and of course was um, uh, uh, chairing the occasion. A lot of people came out to attend the program. Gis ngeen ñoom Papa Ndiaye Bibi Dabo ak um, OJ ñoo toog noonu macha allah ci congress bi. Ah, ah, gis ngeen li xew foofu noonu waa PPP ñoom tamit you see the delegates that are talking ah, foofu ci programme yi PPP bi keroog bi nga xamee ne ñoom kat tese woon nañ pour def seen programme foofu ca naka lañ ko ooyee Serekunda kon gis ngeen delegates yi loolu lañ jot a foofu noonu ñoom PPP dooy def nañ seen bos Um, GDC def nañ seen bos muy Mama Kandeh partem bi and like uh, gis ngeen Papa Njie moo toog nii dendoog OJ of course Bibi Dabo was also there uh, kon we would have loved to bring you these images but unfortunately it's been a minute um, that we've been on air for about two hours duñ def dara du ñu tënka programme bi rek at this minute this point uh, pour waxtaan ak yéen li nga xam ne moo jotoon a xew foofu noonu li óor te wóor Um, parti yi def nañ seen congrès yi one thing lan moo tax gars yi choose pour def ko the same weekend APRC def nañ two weeks before ñoom UDP um, def nañ before loolu naaw lan moo tax ñeneenti parti yi who are all big and major parties ñu choose ñoom pour def seen congress on the same weekend why ndax resources yi lañ amut ndax xaalis bi lañ amut ndax dañ doon bugg a compete each other rek gis nga organisation dafa am solo yéen a ngee def loo xam ne bugg a ngeen the same stakeholders pour ñu participate ku si nekk si ñoom bugg nga di same stakeholders pour ñu participate ni UDP defee ñoom ñëpp seen njiit yi mun a ñëw teew pour atteindre ko su ngeen seetee bu UDP bi ñoom Mama Kandeh ñu ngi fa woon ñoom ñëpp ñu ngi fa woon APRC dev the week before. They could have spread themselves out. In as much as yéen am seen diverse difference One ngeen a am a common ground Singe na ligi. Dah ndax nyep yo yóbbu réew mi kanam moo media bi la ñoom ñëpp media bi yep teew Gambian media everybody is struggling ndax nyep am nañ capacity pour yónnee ndaw mu everywhere si ñoom ñëpp seen kongresi. for ñetti fan you talking about four to five different events happening in different parts of the country ñii ñu ngi North Bank ñii ñu ngi LRR ñii ñu ngi URR ñii ñu ngi KM dépasse bi ak everything else IEC ndax am nañ personnel bi gars yi waroon nañoo gën a stratégique of course ku si nekk si ñoom di nga yónni ndaw for example GDC suñ amee PPP yónni leen e junior officer lan la ñoo xalaat ndax junior officer boobu noonu ñoom duñ mere ñooñu ah waaw ñun suñ congress bi Mama Kandeh moo teewoon ñoom ñun invite nañ leen indiluñ ñu Mama Kandeh naka ñu indil ñu am ah, ah, kii nii ñu indil ñu MC Cham or somebody else wala boog duñ mun a seen kenn because it is their congress ñoom tamit seen bos la week boobu la. dafa nekk loo xam ne dañ ko war a seetaan gis nga Gambia dañ war a organise lu bari suñ parti yi dañ war a organise seen bopp they should organise themselves ci lu nekk nag ñun organisation is very daf dee laag lu bari there is no control gis nga su ngeen a def dara even though ku nekk yaa ngi am sa mbiri boppa looy def waaye am na foo xam ne dañ fa war a amee common ground consultation that's where it comes in ngeen waxtaan ku si nek xam sa morom ah yen kañ gene a def waaw ñun dinañ def last week in december déedéet xaaral kon ñun ñu def last week in November déedéet xaaral ñun ñu def second week i décembre pour ngeen supportante dafa am solo lilo lu am solo la so i think they all drop the ball there by all of them doing their congress on the same weekend tan nañ seen leader si ku nek si ñom wax na li nga wara def des na si yen nak Gambien ci ngeen set ban manifesto lañ leen amal kenn bu mu toog rek ne su ma nijaay mooy Oje Jallow suma nijaay mooy Hamad Bah suma papa mooy Mama su ma papa mooy xalifa Sallah moo tax may sànnil ñooñu wala suma néebo la wala daf ma defal teraanga déedéet seetal ban programme la kooku am boo xam ne yow fiil nga ne dina la njëriñ yow personally ba pare njëriñ askan bi yëpp together bul seetlu laa njëriñ kenn rek de seetal the greater good of the country askan bi yëpp ak dëkk bi yëpp ak réew mi yëpp lu ko njëriñ nga jàpp si loolu noonu nga sànnil ñooñu ñu karta kon léegi ñoom ñëpp taxawal nañ seen i ndenda samp nañ seen i ndenda am na moo parties yoo xam ne dinañ leen register whether président Barrow dina joxe léegi in 2021 or 2020 I mean am um, am um, six wala 2019 is a different story waaye li óorte wóor mooy 2021 la Gambia war a am élection te su jotee dinañ xam yeneen parti yi nga xam ne ñu ngey jéem a ñëw dégg nañ parti yu bari élection is gonna be very Gambia we wish we had more time pour gën a dellu si lii waaye dinañ gën ñëw activities yu go on political um, uh, uh, differences yu go on PPP ba tey jii coow laa ngi ne foofu ndax dos bi setul na ndax Papa Ndiaye lañ taxawal noonu Papa Ndiaye win na ok ndax results is gonna go on contested ndax contestant. ndax Bibi Dabo dafaa ñëw sampandindi boppam taxawal pati boppam ñeneen ñi ñu ngi wax ne dafaa dem join baro because baro amin uh, pare na pour sampandindam am na ñuy wax ne sax dafaa dàq si lawyer Dabo jël ko def ko moom vice président yooyu yëpp mu ngi the talks yooyu yëpp nit yi ñu ngi koo waxtaanee ñu ngi koo laam-laamee di ko waxtaanee ci mbedd mi ndam Bibi Dabo dafaa sampandindi boppam wala dafaa dem taxawal parti boppam it's a different story am baro dafaa sampa parti boppam ndax joinaat UDP it's a different story amin ndax dafaa def coalition with APRC or any other party it's a different story the political dynamics of the country mu ngi interesting bu baax a baax a baax ci jamono ji nekk nii des na si yéen waa dëkk bi nag yéen ñuy diaspora bi am ngeen ci cër dinañ leen jox di opportunity pour ngeen vote hopefully by next election diaspora bi dinañ mën a sànni karta ñu nekk Gambia maa ngi leen a ñaan bu kenn sànnil kenn karta ngir sa néebo la ngir sa dëkkandoor la ngir sa mbokk la sànnilal boromam karta ngir lim la fa li moo njëriñ réew mi politique mooy sànnil ma karta ma gën la de te na seen bët yi ibbeeku ngeen seetaan leen ñoom ñëpp bu kenn ñëw jëndee leen xaalis ndax ku ñëw jox la benn 500000 dalasis 2000 5000 ci benn boobu laa am bés bu demee ba toog foofu noonu ba am sa karta jeexal na si takk kon is very important Gambian si bàyyi xel lii nañ leen bàyyi xel ci yëfi sànni karta nañ leen déglu gaay yi demal si ñoom ñëpp seen ràll yi wala soo si muntee dem nga seetaan ko ci tele bi wala nga déglu ko ci rajo yi wala si whatsapp bi yéen a koo mun a déglu déglul ku ne lum la amal su fa toogee ngeen seen ndax lim leen wax laa def. comme ni MC Thiam di wax ne Baro dafa waxoon Gambien ci campagne ñetti at su ñetti at yi jeexee dafa war a teg joxendi ndey gis ngeen président Donald Trump mu Amérique lim campagne ne su taxawee dina sampa wool dina jël tabax muy fence def ko diggante Amérique ak Mexico te Mexico ñoo koo fay amut option pour Mexico fay ko bugg na American ci fay ko right now mu ngi dem back and forward with the Congress America ci yéen nguur gi quarter of it nekkuñ di liggéey lu mu juróom-ñetti téeméeri junne nit America ci nguur gi nekkuñ di liggéey ngir dañ amee government shutdown shutdown juróomi millions yi dollars billions yi dollars laa laajte pour bill wall boobu pour bill fence boobu noonu Congress bi ne duñ ko ko jox. kon moom loolu la campagne woon li mu waxoon ne loolu la moo def immigrant si loolu la nekkat def kon Gambia nañ leen ibbi suñ bët suñu politicien si diggee ñu make sure ne luñ ñu dig gars def nañ ko kon ibbi leen seen bët yi ngeen seetaan ngeen toppa ngeen déglu te bañ a toppa am am am ndiiraan bi ku si nekk kuy sànni karta ku nekk kuy déglu ku nekk na nga déglu ki nga xam ne mu ngi laa indil projet boo xam ne óor na la ne su jëlee nguur gi dina liggéey dina def dara pour dëkk bi kon li lañ leen amalon ci lutax gambe du dem show dégg ngeen ñi nga xamne ñoo ci political party ci liñ jota wax dinañ leen jema a indil party parti yi ni ku ci nekk ci ñom pour ñu waxtaan ak ñom that has to take special arrangement pour ñu waxtaan ak ñom pour indi leen ñu waxtaan ak yeen askan bi wax leen ñom liñ amal askan bi ngeen leen a déglu leen topat leen setan ñu ngi leen ay bu baaxa baax ñu ngi leen ngen ñaax pour ngeen jappalé ñu ci Gambian Talents ndax li dafa metti we spend almost 45 dollars pour jënd I mean uh, card pour jënd minutes pour call ñom MC Cham ñoom Aminata Kori ñom ñëpp dégg ngeen phone bi ni mo ringé direct line lañ leen call which is very expensive ku ñu donate five dollars a month lolu ci yebi sixty dollars la lolu jëndal nañu calling card pour ben show ben show la la wax de because yene ñu spend more money making more calls I spent forty five dollars today pour call ñi suma ma jot am ñi nga xam kon jokku na leen wa NRP te jotuma leen daf doon gëna bari so seen contribution five dollars a month ñun xeebuñ ko waaye dina indi lu bari loo xam ne dina ko wecci fii kon jàppale leen ñu ndax seeni bët lañ bugg a nekk yi ñoo xoolee seeni gémmeñ lañ bugg a waxee seeni noppal lañ bugg a dégloo jàppale leen ñu we want to do more with support suñ internship programme bi dina gën a dem kanam ñi nekk Amérique wax nañ leen ne with this tax exempt status lu ñu waay donate yi tamit ku ñu donate benn amin 50 dollars 100 dollars 200 1 million dollars at the end of the day yëpp da nga koo jëlaat dafa mel ni da ñoo lebal nguuru ñun nguuri Amérique fay la kon jàppale leen ñu ngeen donate ñu ngeen support ñu soo si nekkee Europe or anywhere else mun ngeen ñoo support by sending us the money through Western Union through PayPal turu ngeen subscribe to suñ channel bi foofu noonu on facebook yéen ñi seetaan live on facebook su ngeen seetee green button bi with the love sign next to the comment section on the right side di ngeen gis foofu noonu ne mun ngeen a contribute su ngeen ko click yi dina leen yóbbu to a secure site where you can enter your debit or credit card wala nga enter fa sa am PayPal account pour ñu ñoo donate directly Facebook dina ko génnee sa account is Facebook internally is not a third party app and is very safe and secure su loolu xewtee su ngeen a yónnee seen alawaan si Gambia mun ngeen ñu faa booleel benn 5 euro 10 jàppale pour ñu indi leen coverage yi si yëpp as we speak suñ team a all set pour indil leen TRRC bi ëllëg suba ak yeneen yi nga xam ne ñu ngee go on kon ñu ngi leen ay bu baax a baax a baax di leen ñaan ngeen jàppale ñu share leen vidéo bi du leen wàññi dara waaye dina nañu yokk ñun bu baax a baax a baax ñu ngi leen a ñaan pour ngeen siyaa vidéo bi ah, képp koo xam ne yaa ngee déglu ñu a baax a ngeen dokkale kii di Aziz Dabakh Gaye moom mi nga xam ne dañ ko selectoon as the Gambian Pride for the Gambian Pride of the Year Award ah, ki nga xam ne mooy Lamin Seydi Kan tamit jógee Farafeñe ñu ngi ko ndokkale ak Farafeñe Cakubantang Diaspora am association bi nga xam ne ñu ngi ko set up ñoom ñi nga xam ne jël nañ leen def leen di Gambian Pride of the Year Award ak Gambian ah, dinañ leen indil mo information ci lolu ñu ngi leen ay bu baaxa baaxa baax share video bi yeen ñuy on youtube ñu ngi leen ay subscribe to our channel if you haven't I mean uh, su fekkee like gulo suñ facebook page bi like ko share leen video bi dina jangal ñeneen uh, dina tax ñeneen ñi doxé ci xamé ci ragné ci xam li dox ci réew mi kon ñu ngi leen ay bëggee bu baaxa baaxa baax ci seen déglu ak seen seetaan bu rafet fu ci way nekk ci ti ko ñi aduna penku xarpu ngop wala ngalandu lutax tax du dem show ngeen doon déglu fi ci Gambian Talent TV ak Gambian Talent Radio képp ku ci nekk Gambia bugg a ñoo donate 7833524 7833524 mooy number to dial ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm leen sant till we come your way next week share leen audio si on whatsapp share leen ko on youtube share leen ko on facebook ku ci waaye nekk rek fu ci waaye nekk rek ñu ngi laay bëggee bu baax a baax a baax until we come your next time jërë ngeen Wala ma dee ñu naan dëkk bi du dem wala ma dee ñu naan dëkk bi du dem way naka la mooy demee fekk elente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wan na sa morom mel ni jën xam si yéen ni kondu noki oxygen. Pa Usman yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog dem lu tax Gambia du dem ñi lañ Sister Eva Eh ni dem Pa Ousmane Pa Usman. De de. lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Usman, Diouf and Eva Riverside, oh New them. 6 p.m. the GMT just in case you ain't know New them, new them, new them Luther Gambia do them show Every Sunday la on Gambian Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6 p.m. la GMT just in case you ain't know New them, new them, new them Palamade, ñu naan teg ka bii du dem Palamate ñu naan teg Yo nene albadima alasta alafanso the queen of Monday ako akana kuma macha allah alkaaji ɓe ɗum no ɗum waw waw waw nkaali yennde o koye ñulle naata ka musikolu kiɗimandi ñulle naata ka atisolu kiɗimandi ñulle naata ka jaɗo gañandi ñulle naata ka jolol fanan fintindi facebook o youtube facebook o to youtube gambia mbiya talent muna promotion lem Gambia talent promotion na promotion ngwanda jawarode maribunga wate wate puna ngejubele wate wate puna la moile wate wate puna ngela kuomila Gambia talent boy Gambia talent boy ngoye dulle nata oy kantoli kidimandi kantoli sewondi kantoli nganyandi Gambia talent muna Gambia talent muna Gam talent boy nkamtɛlɛ nti wɔ ye ɛwale pa usman du inimba